رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم بوكي جليتي السلام عليكم بوكي اوديتيري راوتينا يين نيغا خامني يين نيي توب ديماس بو جوت في وقت في في تي راديو خاصيدا اونلاين نونغي ام بكت دلوسي وات اك يين نينكوي ديفي ديماس بو جوت في وقت في آه، في تي سين ايميشن جاسبرا di ànd ak seen mbokkum taalibe Pape Demba Dia fii ci Pontedera euh, ci micro bi ci beneen wàll wi sëriñ Pape Mokhtar Tall ak sëriñ Cheikh Mbacke Mboub alaaji jóolu Xaadim Rasool fële ci Touba Parme ci xarala bi sëriñ Modou Mbaye Thiam Baye Fall ci studio mu Mountakha Mbacke ci Touba Milano ñu ziar ñëpp nag euh, di jiital ci ziar bi sëriñ Touba Cheikh Mountakha Mbacke di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd زيارة مولم كليفي ديني راوتنا شيخ سيدين توباي زيارة سنو مبوك ييغا خامني نيوم نيو بوك سنغال واي يالا ديف ديك يينن كونفري كريتيان سما هوخي رك داماي خلات سماي فات داماي داماي خلات سما ماك ا ا ريمون ak euh, communauté chrétienne bi nga xam ni dañu nekk fii euh, fii ci Italie man fii ci Pontedera rek maa fi am communauté chrétienne bu bu am doole euh, yàlla def ñu bokk jógee sunum réew bokkit maanaam lu ñu génnee mu di taxaw bokk benn pas-pas sunu réew ak sunu njaboot rek def kon ñuy ñuy ñuy bokkandoo suñu ay xew-xew bu ñu amee xew xew tiis wala xew-xewu bégte lépp dañ koy ànd ak ñun euh, léegi-léeg émission yi ñu ci dugg di contribuer kon mënuñu euh, ñàkk bañ leen a nuyu di ziar mboole umma islamique bi ci assura bi nga xam ni moom lañu ñu génn mu di altine bi weesu euh, dugg ci at mu bees mille neuf mille quatre cent quarante et ci atum gàddaay bi di di di di atum jullit xëy na euh, du consuétude ne xëy na nekk nekkal nekkul fii euh, actualité waaye sunum réew boo leen ko xoolee tamxarit bi bari woon na manifestation yu fa amoon euh, boo ko waxee rek nag jóobeen yeeg layeen yeeg ndaw kundaay yaakaar nañ ni wàllu xéwlu gi rek moo waaye dafa nekk ay moment de de réflexion moment de fàttaliku ndax buñ lay wax la ca xew yépp ci njabootu sayidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam sitam sëtam yooyu ñu ñu faat fële ca Karbala ak xew-xew yi nga xam ni moom lañ lay wax ci taarixu diine lu ma di fàttaliku la ñun nag dañoo am li nga xam ni moo di sunu identité doon ay julit doon it ay murit kon bu xew-xew yu mel ni amee day jaadu ñu ñu ànd ci ñun ñëpp baax euh, baaxantal ko euh, lépp lu ñu wax ni lu baax la ñu jaar ci euh, bokk bokk julli waaye it di ziar it sunu mbokk yi nga xam ni sunu yi ñi nga xam ni ñoom la ñu bokkal rajo bi sëñ Mouhamadan sëñ Ibrahima Ndiaye ak mbokk yi nga xam ni ñoom lañu ñu nekkal ci rajo bi yëpp ñoom sëñ Ablaye Diop mbokki taalibe yi nga xam ni ñoo nekk ci rajo bi di contribuer euh, sëñ Moustapha Mbaye Samb ku ci nekk rek liggéey ba ngay def euh, liggéey la boo xam ni ñu ngi koy bàyyi xel fàttewuñu techniciens yi nag bëgg sëñ Saliou sëñ Aliou Mbuub Jasbul Murit euh, ak mbokk yi nga xam ne rek ñoo nekk ci technique bi yëpp di leen xamal ni am na beneen lu bees lu mbokk ci lu nekk ci rajo bi mu di mm, page YouTube bi nga xam ni rajo Xassida online ubbi na ko nekk benn page boo xam ni bu ci boo ci duggee di nga mën di suivre émission yi en direct waaye it boo ci inscrire euh, page bi dina la mën di ajourné léeg-léeg bu fekkee am na vidéo bu bees mu yëgal la ko bu amee vidéo bu war a nekk en direct mu mën la jox euh, message ba nga xam ni daanaka dara dootu la raw ci rajo Xassida online ndax rajo Xassida online kat euh, instrument la boo xam ni ñun fii immigré yi nekk ci diaspora bi defe naa ni mënatuñu tàggoog moom kon jaadu na léeg-léeg bu amee xew-xew bu bees euh, ñu ñu ajourné mbokki auditeurs yëpp mbokki taalibe yëpp xam nag dugg bi yàgg na waaye mën a sutoon a ñàkk tey jii nag am nañ ay gan waaye balaa maa def dara damay jox sëñ Pape Moxtaar mu nuyoo dellu si ñu doog nag dalal suñu gan yi sëñ Pape bisimilah. jërëjëf sëñ Pape. bismillahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim. ginaaw bi ñu sante yàlla julli ci sangu sangi ñu ngi sant suñu ñaari wayjur bu baax euh di jital nak ci nuyo bi euh señ muntaha di ko ñaanal yalla mu yàggu fi lool and ak wër jël nuyo bi di tek ci loxom yek jallale ko bép kilifa diine ak kilifa aada bu nekk Sénégal ak fu ñu mënti ne ci aduna bi di nuyu bu baax baax sunu jëwriñ yi ci radio bi señ Ibrahima señ ak suñu technicien moo du Thiam Baye Fall di ko ñaanal bu baax a baax moom it ndax euh, bu lépp yembee rek mooma euh, di nuyu nag suñu mbokk auditeurs yi euh, di leen béggee bu baax a baax di leen ñaanal yàlla may leen gudd fan ndax kuy wax day bëgg ku koy déglu te it gis nañu seen seen laxasaayu bu baax a baax ci rajo bi ak topp gi ñu topp rajo bi di nuyu nag ak sargal sëñ Cheikh Mbacke El Hadj ñu ngi koy siyaar bu baax a baax sëñ pap di la nuyu yewit di nuyu suñu gan yi di leen dalal di nuyu wa Parma eh, di leen siyaar ñom ñepp nuyu bayiwuma kenn eh, ku lim da nga joom waye ñu leen di nuyu yeen ñepp di leen bege bu baax eh, di kontan nak ci xew-xew bi nga xamanteni ni romb nañ ko tey jii président association bi sama frère Ibrahim, Diop yalla may ko ndam li ñukoy ñaanal ndam li ndam lu sedd te it eh, mu ànd ko askan wi ba suñu borom defal ko ci ndam lu kawe njortam eh, kon señ pap duma guddal damay gatal rek del la comme dono ami gan gan mom boko amé dang koy teral yaatal ko ndax loolu baxo kon dama lay delloo kaddu gi rek bu ko defee nga mëna dalal gan ñi inshallah ñu dugg ci waxtaan wi bu soobee yàlla. jërëjëf eh, señ pap waxtaan wax nga lu am solo yaangi sante wa parmi communauté bi. liggéey bu am solo boobu ñu def di ñaanal suñu mbokk moomu nga xam ni moo jël lengey fas yéene ko euh, taxaw doon Baay Faal communauté bi xam naa rek ñu sant it suñu doomu ndey sëñ Abdou Ba mm-hmm. moom mi nga xam ni moo nekkoon euh, le président sortant defe naa mm-hmm. ñaari mandat moo jiite communauté bi mm-hmm. euh, am taxawaay bu mu am ci communauté sénégalaise bi defe naa ni sant ko ñaanal borom def ko ndax Euh, président communauté responsabilité la ak liggéey la bu metti boo xam ni vraiment euh, hmm. ci dem rek génn ci te amul lenn luñ la wax rek war nañ amel nañ lañ jukkal boo xam ni wax dëgg fa yàlla euh, gàcce ngalaama sëñ Abdou ñu ngi lay ziar bu baax di la xaaraat ndax bokk na ci ñi nga xam ni ñoo ñoo sos diaspora bi daan ci ànd ay at yu bari di ci liggéey ensemble Euh, euh, euh, tey jii nag xam naa balaa maa dugg rek émission bi sëñ sëñ Pape ma bëggoon rek ñu def benn prémisse bu ndaw ci xew-xew dañ ko tàmm di ko baaxoo di ko def semaine bi passé mm-hmm. wax ci investiture gouvernement Conté bu bees bi mel na ni mm-hmm. tàmm dina jox nañ ko fiducia de waxtaan nañ ci lu bari ci dimanche bi mm-hmm. tey ji nag daanaka boo xoolee lii ay bés fii ci sunu nekk fii daanaka mën naa ni lu ci ëpp Sénégal la. qualité euh, hmm. bi ba fa xew euh, lenn li ci wàllu mbënn mi ndeysaan bay lool. Euh, ñu ñaan ndox nag ndox fekk si ñu. xëy na dañoo amul ay instrument rek yu mën a gàttandoo ndox mi waaye fa jógee wax dëgg fa yàlla bariwul. wala soo waree sonn ko mën a téye téye boo xam ni. Euh, ndox mi euh, ñu mën a jariñ bu bu bu tawatul ndax dëkk boo xam ne daanaka ñaari weer lay taw. di hmm. euh, fukki weer yi taw. war nañoo góorgóorlu li laay wut suul yi mu ñu mën koo canaliser denc ko ndax léegi àdduna xarañ kooku am na fa. Hmm. ba ba ba yi coono yi ñuy dund jamono yi duñ ko dund. waaye rek lañ doon wax hmm. rek moo xoolee jamono ji moo di histoire du Sénégal bi nga xam ni euh, moo fa nekk actualité nekk euh, xew-xew indi coow yu bay indi na ko ci daanaka wàllu waaso yi ndax boo xoolee tey ji suñu euh, mbokk lébu yi ñu ngi jóg suñu mbokk diine yi tam ñu ngi jóg mbokk ci jaan yi ñu ngi jóg semaine bi boo xoolee daanaka réseaux sociaux yi ku nekk yaa ngi jóg di wax hmm. vraiment euh, ñuy ñuy ñuy woote waat rek à une retenue ndax Sénégal nekk dëkk boo xam ni wax dëgg fa yàlla euh, coow mënu faa am euh, ci diggante confrères yi ndax mag ña de daan nañ demante demante boo xam ni bàyyi nañ fi ay témoignage yoo xam ni ci ay ay téere yu ñu bind di ko seedante ñoom seen biir wax dëgg fa yàlla tey jii jóg di wax boo mën diw jàngal diw woote waaye it borom xam-xam yi nga xam ni ñoom ñooy ñoom ñoo ni ñoo war a bindaat histoire Sénégal man yaakaar naa ni li nga xam ni euh, euh, diggante bi ñu war a bind diggante diggante bu sori wax dëgg fa yàlla ndax boo xoolee tubaab yi tey jii ñun fii ñu nekk tey jii nga xam ni dafa bokk ci kulla suwaaru adduna bi nga xam ni tey jii da ngay dem ci ay ay cathédrale ñu bind la ay bind yoo xam ni li ñu lii biñ ko fi bind am na ñaari junni at diwa ko bind wala ñu ne Leonardo moo def lii wala di moo def lii am na ñetti junni at ñun ñu am histoire boo xam ni daanaka ñu ngi koy bind ci diggante téeméeri at mu bëgg a indi histoire bu dul jeex kon dafay mel ni euh, tension boobu ñu doon wax sunum réew ba léegi génn guñ ci sunu réew mi jamono ji toll nañ ci foo xam wax dëgg fa yàlla war nañ xoolaat dëkk bi lan moo fa nekk ndax it euh, bu nit yëkkatee big sax bu ko jubalee gauche ñu ñu nekk ci droite ni waaw ñun da nga ñoo nangam ba mu mel ni tey jii dafa mel ni dafa am lu lu ñu dal suñu réew ba nga xam ni toog sax waxtaan euh, yu bari am na ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci yooyu mais ñu def ko ba nga xam ni tey jii kenn di jóg di kenn wala wala wala ni ma maa gën ma sàmba wala maa gën ma demba ndax it nag booy xool téere bi man liñ ma ci jot a yónnee wax dëgg fa yàlla am na loo xam ni te jii boo ko laalee ci biir pas-pasu jàmbur la te it nag yaakaar naa ni pas-pasu doomu aadama nit balaa mu koy laal war na nan la koy approché wala ci ban contexte la koy laalee ndax bu fekkee da ngay laal contexte intellectuel day aajo nga jóg ni man kat euh, sama xam-xam matul ci ci ci ci ci baatinu dugg ci baatinu diw waaye nag damay wax ci li nga xam ni moo fës ci bind ci ba ñu xam ne yow mi kat lii bind waaye boo bëggee bind ci nit ni da ngay wax histoire diw ah commencé di dem ci yenn di dem di dem ci yenn yenn yenn yenn yenn yenn côté yi day mel ni da ngay laal pas-pasu jàmbur yi su boobaa dafa loolu daal gis naa ni tey jii actualité la boo xam ni Sénégal mën naa ni semaine bi yëpp moom moo ko xaw a euh, rumandoo euh, euh, beneen bi rek di jëm ci lii di inauguration Masalik loolu moom xam naa di Masalikul Jinaan danañ ci wax dimanche bii di ñëw incha allah waaye tey jii histoire du Sénégal boobu nga xam ne def na liggéey nañ ko ba ba ba ba génne ko ba yaakaar naa ne danañ ko retiré waat ndax Ibader Ibader reconnaître na ni am na ay erreur ci am ba nee dinañ ko dinañ ko retouché ban jàngat ci am. waaw sëñ Pa euh, du ci guddal sax nag ndax euh, jàpp naa ni bu ñu demee ba réew mu toll ni senegal am fu mu toll am fu àdduna toll euh, dëkk boo gis ci àdduna ma ngay yëngatu ndax ci diine ñu jàpp ni dafa am lu boroom xam-xam yi doon wax ni jamono dina ñëw boo moytul sax guerre mondiale dafay nekk dafay jóge ci ñaari mbir

ndax dafa amoon ay tubaab yoo xamante ni ña nga woon foofu di ko dund ak ñun di ñu séddale daan séddale mag ñi te mag ñi séddoowuñu woon ci seen biir daan yigoo di déggante nekk ci jàmm ba seen njaboot yi nekk ci jàmm yaakaar naa ñun taalibe yi ñun ñoo ñun ñoo sonn te it li ma koy tëjee rek jaral mooy taalibe bu ci xamul euh, li la war te xamuloo ni euh, sëriñ Tuuba maam alaaji Malick dafa am lu leen boole taalibe bu ci xamul nii maam limaamu laaj maam Baye Niass dafa am lu leen boole boo ko xamul da ngay noppi parce que gis nga philosophie soo ko bëggee jël di ko dugal ci biir religion di ko càmbar di laaj di gëstu di diingat yaa ngi sonal sa bopp ndax religion moom moo xajoo philosophie waaye philosophie xajoowul religion ñun jàng nañu philosophie xam nañ ni philosophie loo wax loo teg ci ji mu ubbiwaat leneen teg fa te diine dafa am lu suñu borom bind ci loolu la ñuy tënku tey ci loolu la ñuy tënku ba àdduna yi tukki te philosophie yooyu nanguwu ko kon xajowuñu donc ñi nga xamante ni ñoonu la ñuy woowee intellectuel yi ñuy jël diine di ko jaawale ak philosophie di ko jaxase ak philosophie il faut que ñu arrêté te it ñi war a wax nañu jóg ñu wax ndax yooyu yu yàq la ndax yooyu day dem ba dana laal ñu mu waru laal am ñoo xamante ni seen njàng ak dana foo xamante ni seen yëngu-yëngu bis bu bis bu jógee du baax ci kenn te it euh, sénégal tuuti na tuuti boo xamante ni euh, say wu ndaw la waaye nag am na loo xamante ni benn réew ci àdduna am ko kon loolu mag ñi liggéey woon fi bàyyi ko fi kenn waruñu ko yàqal waruñu nangu it kenn di ko yàqal suñ foofu daal laa koy tënk euh, bañ a guddal rek ci wax jooju. jërëjëf jërëjëf sëñ Pape Makhtar jërëjëf mbokki auditeurs yi yéen a ngi deglu seen émission diaspora euh, tey jii nag ñu fas yéene dalal euh, sunu ay mbokk sunu ay mbokk taalibe sunu ay mbokki sénégalais yu nekk ci diaspora bi fii taxawal nag benn kuréel bu am solo mun naa ni. bokk ci kuréel yi nga xam ni euh, defe naa ni mbokk euh, bu ñëpp royoon tey jii ni ñoom ni ñu def nii mën naa ni euh, communauté bi dinañu commencé tegu ci yoon bi mu di ñaan mu di AAPSE ñu mën leen a turéel ci gàttal kuréelu chauffeur yi nga xam ni ñoo nekk ci tali bi sénégalais yi nekk ci tali bi di daw nekk ay ay long porteur wala mm, di daw ci dëkk yi rek ñoom ñoo formé wu nekk benn kuréel euh, euh, ubbi seen association vraiment ñu reconnaître leen ba ñu nekk benn kuréel tey jii nag ñu fas yéene dalal euh, président bi Serigne Modou Diouf Mbassa ak secretaire général bi Serigne Diong xanaa rek balaa may def dara dama leen di jox kàddu ñoom ñu daal nuyoo ba pare ñu doog nag tàmbali. Euh, émission bi sëñ Modou bisimilah. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. maaleykum salaam. mbokk jullit yi taalibe yi ñu ngi leen di nuyu. di leen ziare di leen balaax di leen baraax. di leen ziar ci at mu bees mi. di leen ci ñaan tey sàkku seen ñaan. di ñaan yàlla mu defal ñu ko atum nataange atum xéewal te. fajal nu soxla yitte yi yëpp yi nga xam ne mbokk yi surtout ñu ngi koy yittewoo saa su nekk muy lu ñu bëgg pour mën a delluwaat suñu réew yàlla yàlla jàpp ndir lépp di ziare waa rajo online yëpp di commencé ci kilifa ya muy sëñ Mahmadan Mbacke sëñ Ibrahima yaay Khalil di ziar technicien bi sëñ Modou ak ñi nga xam ne ñoo composé rajo bi yëpp rek nga xam ne ñu ngi koy taxawoo liggéey yi fi nekk eh, di ko teg ci loxo suñu jëwri ñi nga xam ne ñoo ñu dalal tey muy sëñ Pape Demba Dia ak sëñ Pape Tall ñu ngi leen di bu baax a baax di jël nuyoo bi seen loxo ñu leen ñu ko ci mbokku auditeur du xasida online yëpp nga xam ne ñu ci àdduna bi kuñ ciy dégg rek ñu ngi leen di ziar di leen baal ax wax jërë ngeen Euh, kon xam naa damay jox Serigne Jong rek moom mi nga xam ni mooy secrétaire général bi Serigne bisimilah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة waa rajo Xassida online ndongo li Serigne Jong la xam naa féete fii ci Brescia pour mbokk nga xam ne ñoom ñoo ñu dégg ñoo ngi jaar ñëpp di jël nuyoo bi nga teg si loxo yi sëñ Ibrahima ak bokk yi nga xam ne ñoom lañ ko àndal yëpp suñu sëriñ sëñ dal ak euh, sëñ Mbodj nga nekk ci xale yi sëñ Pape ñu ngi leen di siyaar bu baax a baax sëñ Pape Demba sëñ Pape Fall xam naa ne comme ñaari Pape la <laughs> Pape ñu leen di siyaar bu baax ñu leen jox seen wàccuwaay. yam mbégte loolu nag ci ak ngeen jox ak Euh, daanaka kër gi moom sunu kër la ndax xam nañ ko miinees na ko euh, kon day mel ni lépp sotti tey def si la rek ñu ci am ci lool di leen euh, sant bu baax nag te leen encouragé ci émission bu am solo bi mm-hmm. wax dëgg yàlla ay contribution yu am solo da ci génne mm-hmm. xëy na léegi la waaye am na jamono duma ko manqué mukk même bu ma ko manqué woon damay dem di dégluwaat kii bi ki ñu koy waxee révision parce que léeg-léeg nga def ci émission yi am solo am solo wax dëgg yàlla kon ñu ngi ci ndokkeel bu baax a baax ci leen sax ñu wax jërëjëf jërëjëf jërëjëf euh, mbokk yi euh, euh, di di fàttali mbokki auditeurs yi rek ni yéen a ngi déglu seen émission diaspora tey jii nag ñuy dalal sunu mbokk yi nga xam ni ñoo nekk ci tali bi ñu tudde leen waa AAPSE doon association de promotion sociale Euh, sëñ Modou Diouf tey jii bu ñu leen doon présenté naka lañ leen mën a euh, euh, expliquer sëñ Modou bisimilah. salaamaaleykum sëñ Pape ñu ngi leen di nuyuwaat leen ziare di ziare sama jëwriñ jooju ma nekkal nekkandool ci plateau bi muy Serigne Jong ak mbokk yi ñuy dégg yëpp xam naa itam di. ziyaare ñi nga xam ne ñu ngi teewlu te bokk ci kuréel googu nga xam ne mooy AAPSE muy association des autistes professionnels sénégalais yi te mu sosoo ci groupe boo xamante ni ñu ngi koy tuddee gaaru ceer Touba Italie nga xam ne fa la lépp sosoo naa ne sax tur la ñu bari gën a miin muy gaaru ceer ndax fala la e, ji ak e, association bi sosoo nga xam ne ay chauffeur lañ yoo xamante ni ngeen ko xamee bokk métier di dund fii ci Europe ndax association bi génn na Italie ñu nga ba France di ci nuyu rek passage ñi nga xam ne ñooy suñu membre yi ak suñu jëwri ñu féete côté bopp ak Angleterre am na niveau européen la yore e, di ñëw tamitam suñu kilifa yi nga xam ne ñoom lañu àndal liggéey bi ñu suñu bàyyi suñu njaay nga xam ne ñoo jiitu ci métier mi e, tax ñoo ñime ci yoon wi ba li taxawee ñu féete ñu fépp ba liggéey bi mën a sëñ Pape Makhtar euh, sëñ waaw dafa mel ni Modou euh, connexion bi dafa dawoon de sëñ Modou waaw sëñ Modou dafa mel ni connexion bi dafa daw waaw sëñ Pape waaw bisimilah bisimilah sëñ Modou man la man la man la bisimilah

Euh, dañoo dañoo oyof lool dama leen a fekk sax wax dëgg yàlla ndax xam nga ñoom lu ci ëpp dañuy daw guddi gi euh, bëccëg gi dañuy dañuy noppaliku dañuy dallu waaye ba ma leen woowee dañ ni bëreet daal di jël téléphone bi euh, ne ma ah loolu day sëñ Pape loolu moom lu nu sawar la te it ñuy ci mbokk auditeurs yi rek ni ñoom ñoom membre à part entière lañu ci biir rajo bi maanaam li ñuy wax ni nit ki dem na fu miin ñoom looloo leen dal ndax fii ñu dal ci tey jii seen kër la ñu dal seen kër la ñu nekk kon dañoo ñëw fu nu miin ñuy kontaan lool nag wax dëgg yàlla euh, di leen dalal di kontaan loolu ci lii ngeen xamante ni moom ngeen taxawal ndax nag euh, li may faral di wax rek association yi dañoo war a am yeneen vision association yi dañoo war a am yeneen i gis-gis association yi waratuñu yem rek ci province bi ndax boo xoolee ñoom nii ñu tënkoo ni ñu dëxëñee ndax boo xoolee maa ngi dégg léegi euh, président mi ngi wax ni ñu ngi France ñu ngi Angleterre ñu nga Belgique ñu nga Espagne kon loolu daf lay wan ni taxawaay bi nga xamante ni ak vision bi nga xamante ni danañ ci dugg xam naa ñoom danañ ñu ko gën a xóotalal. Mm-hmm. ñoom dépassé nañu frontières yi. Mm-hmm. kon forme de. solidarité bi waaw bisimilah. maa ngi jégalu wax ci xam naa dama amoon appel suuf doon ko désactiver te mu far mm-hmm. dëgg mm-hmm. xam naa bu ma dikkaatee rek ci question bi euh, sëñ Pape posé ci lu jëm ci gaaru ceer bi euh, ñooy ñan ak xañ ne dafa mel ni su ma ci question bi mooy ñu mu sosoo ak ñu euh, ñu mën a tuddee daal ñu bokk métier lañ ngeen ko xame ay chauffeur yoo xamante ni li dund ñoo ko bokk te bari na ci loo xamante ni eh, ay problème wala la ñuy soxla suñu métier ñun ñoo ko mën a xam mm-hmm. te it wax dëgg yàlla solidarité moom ci chauffeur kenn ku nekk xam na ko depuis Sénégal wala am na bi foofu dem mm-hmm. eh, benn la ñuy doon ba ñu daje sax ci ndaje yi da ngay xam ne dañuy xamante ñooy daje barabu liggéeykaay yi lépp problème ñoo ko bokk mm-hmm. ci la yàlla dogal eh, ci la gaaru ceer bi sosoo muy Touba gaaru ceer Touba Italie bi mu sosoo itam ci lañ xam ne comme dañoo am lu ñu bëgg il faut que ñu am fu ñu dox jëm fi dox jëm nag mooy fexe ko euh, jëmmal ci euh, réew mi ñu dund li nga xam ne lu fi sosu wala association wala mbolo mu sosu mu nekk dafa am ay norme yoo war a tege ñu dox jëm ca loola pour mën a euh, àgg fa ñu jëm ndax loolu rek mooy mën a tax ñu àgg fa ci loolu yàlla def la tawfeex gi ak mag ñi nga xam ne ñu la tuddoon nga xam ne métier mi ñu nekk di ay chauffeur ñi ko njëkk def fii ci sénégalais yi ci suñu bàyyi ko fi njëkk def wala suñu niyaay yi depuis 87 ñu ngi ko fiy def ñooñu itam yàlla baaxe ñu ñooñu ñëpp itam biñ ko déggee wax dëgg yàlla mu doon loo xamante ni ñoom dafa mel ni seen bëgg-bëgg la waaye yàlla ñu ngi koy door a réaliser ci eh, ñun ñi nga xam ne seen jarbaat lañ seeni doom lañ ñu am foog ndeysaan wuy suñu ba pare encadré ñu eh, jox ñu ndigalu taxawal ko ñu féete ñu ci suñu ginnaaw féete ñu fépp ci gàttal daal xam naa noonu la sosoo Euh, xañ na buñ gënee dugg ci waxtaan bi yeneen ñi nga xam ne rëcc nañu ci li ñu war a mën a leeral ñu indiwaat ko wala bu Serigne xanaa li ci des mu mën koo mot say général am waxtaan waaw maanaam euh, damay jokk rek fi président wàcc léegi rek euh, ci forme de solidarité boobu ndax wax dëgg yàlla métier chauffeur xam nga lii dafa doon vision boo xamante c'est une vision de secteur parce que euh, buñ ne association chauffeurs yi man mi don syndicaliste bokkuma ca waye ca la bok ndax bu ñu ma soxlaa dinañ ma wo dinañ ma laaj man it bu ma dina soxlaa dinaa dina woo dinaa laaj te sénégalais la ni ñoom waye ñi nga xamante ni doxal ñi nga xamante ñoom am vision bobu mom moy chauffeur yi donc vision boobu chauffeur yi am man namm naa bu subaa ñi nga xamante ni ñoom ñooy nekk ay métal mécanique di ay chef de chantier fii ci réew mi di ay sénégalais ñu am vision bu ni mel daal di daj dajaloo daal di créer loo xamante ni parce que gis nga li ñuy fas faral di wax naan euh, une vision de développement durable vision yu mel nii moom moo koy indi nga am benn gis-gis boo xamante ni yow da nga naan man taxawuma sax Italie xam nga chauffeur si dëkk Parma rek am na fi ay chauffeur yu dëkk Parma ñoom sëñ Jili Faal a ngi fi ñoom Abdou Diop a ngi fi ñoom Pape Ndiaye ngi fi ak ñeneen ak ñeneen waaye xam nga ñooñu tënkuwuñu ci waa Parma rek waaye dem nañu ba génn Emilia Romagna génn nañu Italie ña ngay dem ba Espagne tey jii sëñ Abdou bu jógee fii dem ba Espagne ñoom ci seen biir ñàkkul am na ku nekk Espagne te gox boobu sëñ abdu war a dem parqué jaare foofu pour xaar ñu karikaare ko ña fa nekk mën ko indil añ mën ko indil reer mën ko jox sijaada mu julli mën ko jox satala mu japp mën ko dalal ci kër ga mu mëna dalu mëna nangam ak nangam kon señ gis nga vision bi euh, chauffeur yi am yalla mi wutim sédé na ni man bi ko déggé sama yaram dafa daw sama yaram dafa daw parce que euh, man lu yag nek ci man la man kuma xam-xam ni dama nek nitu défi li nit ñi di yaakaar ni li mënul nek man sa su ne damay gëm ni mëna nek parce que bis bu yàlla dogalee ñu boole xol yi bis bu yàlla dogalee ñu nekk benn bis bu yàlla dogalee nga tax nga nga nga jàpp ni yow kii taxaw fi yow la fi taxawal kon jox ko sa kóolute mu am rapport di rapport du fiducia sa diggante ak moom lu ñu bëgg mën nañ koo def te dëkk bi fii amul dara lu ñu fi li ñu manqué rek mooy ñu am nekk benn mën a xool benn vision bàyyil ma gàtt rek comme tey moom gan ñi lañu gan gan ñi lañu lañu la ñu dalal Euh, balaa ñuy dugg ci question yeeg yooyu euh, bu bu ko defee lu lu matul rek ñoom ñoom ñu ko mottali bu ko defee auditeurs yi aussi ñu ngi leen di xaar ndax xam naa ni jamono mbokki sëba itam mbokki sëba yi dañuy day bëgg ñu dugg tam xam naa ni mais mais sëñ Pape sëvër si xam naa ni tey moom boo moytul dinañ yéex a karikaara ndax xam naa ni ñu ci émission bi <laughs> waaw waaw mais nag damay ñaan ñu dugg damay ñaan xam naa ni euh, euh, sëñ Jong rek laay interpellé tey yi comme mooy secretaire général bi. Euh, mm-hmm. sëriñ pour laaj leen ban nécessité ngeen amoon pour boole. boole seen bopp ndax dafa am ay manquement ay ay gis yoo xam ni da ngeen ni dafa war a saafarawu te saafarawul lan moo lan moo wund vraiment ànd bi lan moo war te tey ngeen gis ni chauffeur bi nekk Pisa. dafa war a booleeg chauffeur bi nekk wala ba bi nekk France sëriñ. Euh, waaw ñu ngi lay bu baax a baax di sama jëriñ sëñ Modou Diouf bi ma bokkal loolu xam naa boo ma ko laajee day mel ni kon kon faaw ñu delluwaat tuuti rek ci historique bi ndax association bi pratiquement avant ñu koy ñu koy taxawal day mel ni amoon na amoon na euh, ci ni ma ko mën a waxee ci benn structure boo xam ne imaginaire woon comme li ma dégg sànq sëñ Pape Fall wax ko ci euh, niki tey bu fekkoon ne am na souveraineté bu jógewoon fii dem ba France war am koo xam ne war na war na ko mën a dal bu fekkee ne dafa war a passé weekend wala yu demee noonu loolu moom naka jëkk amoon na ci bare bare bare mun naa ci fàttali benn anecdote sama benn mbokk taali boo xam ne mu ngi fii ci Rimini am na benn année maa ngi euh, waroon a changé liggéey ñëw ci dëkk bu ñuy wax San Marino ci république San Marino nga moo moom moo xam ko ñu koy wax sëñ sëñ Mor Fall bi dama defoon dañ may jox oto ma daal di départ su ko defee a jaar sama kër wala bokk sama passé passé semaine bi bi mais comme booy doog a def doy doog a dañuy bëgg nga def euh, local daw ci biir dëkk bi mu ngontee wàcc nga xam ne mbokk taal bi ko ko wax am na sama benn mbokk taal bi bu nekk seen zone boobu noonu mais xam naa ne comme xamu fa kenn bu fekkee ne dafay fanaan Euh, du mën a fanaan ci camion bi est-ce que du mën a ñëw sa kër mais ci saa si euh, moom ci boobu moo ma contacté moom ki may booleel moo ma contacté yabal ma këram boole ma nit ñu ubbil ma néegam nekk naa fa une semaine te bien avant xamante woon nga xam ne kon mooy loolu laay expliqué ne kon lu amoon la ci beneen cadre ci structure boo xam ne lu imaginaire la woon mais comme loolu bari woon na yaatu woon na xëy na peut-être dafa nekkoon lu xawoon a lu xawoon a féete ci benn boor ñi xamante woon dañoo doon deflante lu mel noonu hmm. mais ñu jàpp ne Euh, bu bu mot Diouf amee mbokki safar yu mu xam man ma am ñu ma xam euh, keneen am xum xam bu ñu fexee ba suñu xamee yëpp bu nekk di nekk benn day mel ni kon ñëpp dañuy xam ñëpp ku nekk day xam mm-hmm. euh, début bi foofu la jógee ndax idée boobu noonu ci jëwriñ sëñ Modou Diouf mii la jógee benn bés la ma mm-hmm. woo téléphone ne man daal sama xel dafa nekkoon ci ubbi benn groupe boo xam ne damay fexe ba da dajale ci safar yi ma ne ah loolu idée bu rafet Mm-hmm. après ñu waxtaan ci mu ne ma nuñ koy tuddee mu ne ma ah tey ñu kaa def gare gare routière Touba Italie te xam ne kon idée bi mm, au rek la woon c'était juste pour ñu xamante ba lépp lu nga xam ne sama moroom sol na ko ci gox bi nga nekkee doo am jafe-jafe ci ci ci loola. ñu mm-hmm. daal ubbi groupe bi ñu duggal ci ñi xam mais fexe ba euh, koo dugal rek nga def ko administrateur ci biir groupe bi. Mm-hmm. su ko defee kooku ku mu xam dugal ku mu xam dugal ba fi may wax yow tey fi ñu toll nii groupe bi panel bi ñu nekk. Euh, nous sommes actuellement à 592 membres. Mm-hmm. ci biir panelu Telegram bi. nga xam ne euh, du du caali rek ni ñu France ni ñu Belgique ni ñu Angleterre ñii en Espagne. Nous euh, mm-hmm. sommes yéene mu ci Europe parce que nous xoolee association bi ni mu tudd association des day autistes yi professionnels yi sénégalais in Europe. donc képp koo xam ne mm-hmm. yaa fonctions, exercer fonction boobu noonu. ci communauté européenne bi. Euh, membre hmm. nga dèjà bu fekkee ne yow maanaam euh, esprit bi jubu na la. parce que après loolu bu ñu ci duggee dinañ gën a leeral parce que tamit comme ni nga ko ni nga ko waxee sànq neewul ne euh, ku dul ku dul autiste mën na cee bokk parce que dèjà esprit bi moom d' abord da nga koy partagé. soo paree hmm. nag bu fekkee ne. Hmm. en général. allo allo on a des problèmes récurrents yoo xam ne allo waaw. Mm-hmm. bisimilah bisimilah. ma ne comme ñu xam ne buñ ko yemalee ci loolu rek dafay gàtt. donc on mm-hmm. xamoon euh, nit ki bu ci nekkee moom dong da ciy lot. Mm-hmm. Euh, ndax ñun suñuy problème nekkul problème yomb ku xam. effectivement léeg-léeg euh, problème ñëw nekk problème pénal boo xam ne dafay dafay dafay sévère trop. xaalis ba bari xaalis. ligne ligne bi mooy réseau bi mooy xaw a daw. réseau bi mooy xaw daw yenn saa yi. ci man la wala ci yéen. est-ce du foofu. réseau bi mooy xaw a daw ñëwal ñëwal ñëwal sa njoom. bisimilah. alors sëñ Njong waaw dafa mel ni sëñ Njong euh, dafa am voilà léegi waaw mi ngi ñëw waaw mi ngi ñëw bisimilah voilà léegi ñu ne kon euh, nañ nañ fexe ba lii ñu taxawal tey ñu fexe ba euh, maanaam def ko loo xam ne danañu permettre ëllëg si biir képp koo xam ne membre nga ci biir association bi jafe-jafe boo mën a fi am association bi dana nekk sa wet su defee lu mu laaj ci taxawu ñu Euh, par la suite ci lañ nekkoon nak ci démarche yooyu di xol au début xamna naa ne un peu difficile parce que daf comme dafa xaw laal di euh, dafa xaw laal di catégorie ya pratiquement dans hmm. daanaka centre service yi foo ci démon euh, lu mel hmm. non lañ lay wax né li ngeen bëgg c'est très difficile bu nekk APS parce que di yéen da ngeen a xaw touché un peu di catégorie ya hmm. ba ba daanaka fi ñu doon affecté su mooy ci ci syndicalisme mais comme syndicalisme dafa am lu mu laaj ñu dugg ci demeen boobu noonu et par la mhm. suite, euh, bien expliqué avec un avocat, on a pu euh, réaliser avec euh, APS. structure la un wala bennaat sax ngeen tollu ci 592 membres kooku vraiment euh teyit ñepp teunku ci euh, gëm gëm gëm vraiment vision bi kooku wax deug yalla dañ leen ci dañ leen ciy jaajëfal bu baax baax mais man dama amone euh, ben ben laaj bu ma bëgg laaj ndax comme yeen autis yi nga xamanteni da ngay da ngay da ngay na nek fi biir italie euh, ngeen teunku ci contrat benn contratto nazionale mooy contratto nazionale dei trasporti logistica ak yooyu eh, contrat boobu dafa am lu eh, am ñeneen ñu nekk Belgique Belgique am benn eh, benn beneen forme de contrattazione France aussi la même chose ñu Angleterre aussi la même chose yéen ngeen am ay ngëneel est-ce que ngëneel yi am muy ay fonds intégrative yi nga xamante ni dañ leen koy jox fii euh, Belgique tamit du ñàkk ñoom it am nañ fonds intégrative yi ndax pratiquement catégorie boo gis rek ci catégorie liggéey am nañu ay fonds yoo xamante ni euh, liggéeykat bi bu ci adhéré dana dana am ay ngëneel pour moom ak pour njabootam mais est-ce que fonds yéen seen au fond de votre projet maanaam kuréel gi ngeen taxawal nii di association bi est-ce que prévoir ngeen euh, beneen fondo integrativo boo xamante ni dafay dafay dolleeku ci li ngeen am a livello euh, diciamo territoriale maanaam euh, kii nga xam ne chauffeur la Italie la nekk am na fond bu tudd interbilatérale bu tudd EBILOG EBILOG euh, moom mooy moom moo leen moom moo leen tënk yéen ci bilatéralité bi ci li nga xamante ni mi ngi jëm ci récupéro par exemple euh, punti patente nangam ak nangam ka nekk Belgique xëy na am na beneen fond boo xamante ni neneen la tudd kooku ay ngëneel yu ab personnel la yoo xam ni kenn ku nekk territoire ba nga ne yaa ngi koy euh, jë jëriñoo mais est-ce projet bii ngeen teg nii am na yeneen i ngëneel yoo xamante ni yu bokkul ak yooyu euh, am ngeen vision boobu ak yan la

comme bi xam nañ ne c'était pas facile parce que même bu fekkee ne bi bi nga xamee ne ñu ngi ñu ngi dox ci lu jëm ci affaire u affaire u légale ay tur ay pôle ay pôle yoo xam ne ay pôle pôle avocat lay doon ak nga xam ne bu ñu amee dara yi demee noonu même yooyu ça a ça a été pas facile nga xam ne yooyu yëpp ñu ñu ngi koy bàyyi xel mais comme bi ñi nga xam ne ñoo nekk ci ci diaspora bi te adhéré wu ci biir association bi dañuy të dañuy tënku rek toujours ci règlement intérieur association bi mais li nga xam ne moom la ñu am ci institution yi euh, loolu mm-hmm. euh, xëy na peut-être ni ñu ko bëggee bëgg mënaguñ ko am ni euh, parce mm-hmm. que il va falloir ñu def ay démarches yu bare bare ba gën a comprendre exactement nan lañ koy mm-hmm. structurer ba nga xam ne ki nekk ki nekk en France wala ki nekk en Angleterre day mu am possibilité di mën a bénéficier wu ci fonds yooyu ngay wax mais tout au début du du mënagul nekk parce que moo tax daanaka pratiquement dañ ko xaw a abstention bien vrai que euh, Europe bi yëpp la mais mhm. pratiquement dafay tënku ci charte yi nga xam mo nek charte Italie. parce que mhm. fi la am cédé fi la am euh, lepp donc pour ñun pour pour le moment ci moom limiter mais n'empêche que yoy ngay wax à la place mhm. pour remplacer ko on a voulu faire un règlement intérieur bo xamné

ñiy participer ñi bokk ñi adhéré ci association bi daanaka ñëpp nekkuñu Italie. léegi euh, hmm. euh, Pape dafa wax lu am solo. xam nga man dama yaakaar ne su fekkente ni dangeen di ànd. da ngeen war a ànd pour gën doolewu ci seen nekk fii avant tout ba nga xam ni da ngeen di mën a nekk une force te man loolu laa gis ndax gis naa ni tey jii bu fekkente ni euh, kuréel gi ngeen taxawal. Euh, tegu na ci yoon wi mu war a tegu euh, war ngeen a mun a toog sax ba bu ñuy discuter contrat wu par exemple euh, officier yi war leen mën a laaj seen xalaat wala ngeen mën a am représentant parce que li ngeen toll ci lim war ngeen mën a toog joxe seen contribution tey jii ci contractation moo xam ne mooy seconde libelle waaye Pape dafa wax lu am solo ndax contrat ba nekk France mën na bañ a contrat bi nekk Italie wala dëppoo contrat bi nekk Hollande euh, est-ce que jaaduwul tey ji fekkente ni APS bi ngeen def fii Italie rek la nekk est-ce que jaaduwul tey ji ñu jéem a xool au niveau européen naka ngeen di mën a def ba conformiser seen seen seen statut ba nga xam ni euh, euh, mbooloo yi nekk ci biir yëpp dinañ ci war gis seen bopp beneen bi aussi moo di euh, ci wàllu euh, euh, taxawaay bi taxaw bi ci wàllu legal ndax ñëpp xam nañ liggéeyu autiste bi bu méttee tey ji nga gis autiste yi léeg-léeg dañuy def accident dañ leen di jël léeg-léeg lu ci bari ñu leen di jël daanaka duñ leen aar aar bi war ci wàllu droit ndax boo xoolee yow sa patente tey ji am na yenn dégâts yoo xam boo ko defee yow yaay perte sa patente autiste keneen la ñuy jël Euh, est-ce que toog jaanwul balaa dara di xew ngeen toog euh, euh, boo leen demee ba càmbar yi fi toog xool wax dëgg fa yàlla lan mooy jàngoro ji nga xam ni moo nekk ci biir ngeen bind ko ci benn mémorandum doo ko mën a taxaw liggéey kooku defe naa président wala yéen ñaar ñëpp sax dafay aju ma ma ma jox ci seen xalaat ndax président secrétaire yëpp nekk war na ci am xalaat bisimilah. asalaamaaleykum bisimilah. waaw ah, bisimilah sëñ Diong bisimilah. waaw kon dama bëggoon a bàyyi rek fekkee ne wala ba tey benn la lii lii sëñ Pape Demba wax lu am solo la pratiquement loolu nga wax comme ni ma la ko waxee ci début bi bàyyi nañ ko xel parce que boo boo xoolee ñun esprit bi njëkk bind ci li li maanaam li a def loolu da cee bokkoon daa bokkoon ci euh, point yi ñu woon rek laa bëgg a wax da cee bokkoon association bi dem ba nekk loo xam ne ëllëg si biir bu ñuy discuter ci li nga xam ne moom mooy futur euh, autiste yi ak doole bi ñu war a mën am war nañu mën a am possibilité pour di bokk ci table négociation yi mais comme ni ma la ko waxee bari woon na ay points bari yu ñu élanqué woon bi bi ñuy bi dox ci lu jëm ci euh, taxawal statut bi mais par la suite avec euh, avocat yeeg centre service comme ni ma la ko waxee dañuy xamal ne am na lancé boo xam ne boo leen ci bëggee dem moom obligatoirement da ngeen di nekk rek di catégorie am mais comme APS dafay xaw a difficile pour ngeen dugg ci détails yi d'autant bu fekkee ne da ngeen a bëgg am doole d'abord da euh, li nga xam ne moo gën a suufee pour ba am doole nga xam ne boo leen jugee da ngeen ko mën a yaatal ba mën a egg fi ngeen jëm mais ci côté bi boo leen jugee rek maanaam dem ci benn niveau boo deful ndànk mun ngeen a am problème ci ci ci ci ci fi ngeen bëgg a egg parce que it après li nga xam ne mooy institution yi duñ leen ci bàyyi te am na loo xam ne bu ñu leen ko tegee boo deful ndànk lu damm seen tànk dafa yomb. moo tax euh, biñ jugee ci loolu rek biñ taxawee APS ñun dañoo dañoo dañoo xalaat nan la ñuy defee euh, euh, comment dire station à notre li nga wax ci li nga xam ne mooy suñuy problème ñun nan lañ koy réglé loolu moo taxaw ñu moo tax ñu taxawal benn règlement intérieur boo xam ne ci benn package boo xam ne moom mooy euh, pratiquement traité lép loo xam ne pratiquement très souvent problème autiste lay doon euh, ci ci secteur bi nekk ci loolu bokk na ci euh, résolution dei problemi finanziari a seguito di una malattia prolungata o un lungo periodo di rimasto senza lavoro nga xam ne loolu point la daa am ay problème financier yi parce que xëy na peut dafa tëdd lu feebar yi demee noonu wala sax mu toog lu yàgg amul liggéey te fekk signalé ko ci biir groupe waxtaan ceeg yi noonu fekkee loolu sottiwul am na ba tey fekkee ne daa am un casier non fondata del del del lavoro nga xam ne fekkee ne autiste daa problème accident boo xam ne comme ni koy sànq léeg dafay dafay nekk lu lu compliqué pour lijjanti sa bopp léeg-léeg titulaire mun nañ la indil ay problème ba jiim laa dàq euh, euh, néewal la doole loolu tamit bàyyi na ko xel pour taxawu ci wàllu légal yi demee noonu ba nga xam ne yow nga xam ne am na ku nekk a gannaaw ba lépp lu ñu la teg association euh, bi dana taxaw ngir défendre loolu ba jafe-jafe du am ci yow donte xaalis moo koy def ñun danañ taxaw nañ pour defar loolu bu fekkee dañoo retiré sa patente ci xëy na peut a ay daal yoo xam ne def ko ci talibe yi demee a association bi dana la dana ci li nga xam ne ci ci wàllu euh, ci wàllu finance waaye it dana taxaw fekkee na dafa dafa aggravé wu ba egg ci nga war a def ay révision war a perte patente gi demee yëpp taxaw ko xel pour taxawu la bu bu bu bu membre bi feebaree eh, bu membre bi euh, wàññeekoo wala njabootam nga xam ne jël nañ ay points yu bare yoo xam ne comme ni ma la ko waxee dañ ko def à notre manière nga xam ne au lieu ñuy ñuy ci li nga xam ne ñoo ko moom suñu droit la xëy na comme fondé yi comme li Papal euh, sëñ Papal wax te loolu mënaguñ ci acquérir ñu daal di ñun dès à présent penser à un réglementaire boo xam ne loolu moo ci dèjà moo ci taxaw euh, ci quota yi nga xam ne moom lañu am seet nan lañ koy définir ba nga xam ne problème bu amoon moom tey moom association bi moom képp koo xam ne membre nga joxe ko amoo moom association bi dana taxaw ba nga xam ne euh, maanaam am nga ku nekk sa gannaaw euh, bu dee loolu laaj yi mm-hmm. bëgg nañ ñu fekk na sëñ Modou Diouf mën naa jëlee loo xam ne moo jël na ci loolu mm-hmm. Mm-hmm. waaw euh, sëñ jongu ma euh, man damay damay damay damay dellu ci loolu nga wax noonu ndax xam nga euh, mooy question bi sëñ Pape posé parce que bon xam nga contrattazione nazionale du ma wax sax en général dama naan dañuy dañuy woo organizzazioni sindacali più rappresentativi Euh, te lolou da fay xawa incompatible ak li ngeen ni def parce que bu fekkente ni euh, association bi dafa tënku maanaam dafa dafa dafa identifié wu parce que ñi ci nek moy les sénégalais yi nga xamanteni ni dañuy euh, opérer au niveau de l'Europe ndax chauffeurs yi du ñu sénégalais yi rek ndax pays de l'Est yi rax nañ ñu ñeneen tubaab yi rax nañ ñu ñeneen yi rax nañ ñu. Euh, bu fekkente ni contrepartie bi di Confindustria wala muy Federalimentare dégg ma Federalimentare sax euh, Confindustria ci boppam ñoom bu ñu ñëwee bëgg a jàkkaarloo ak sénégalais yi buñ ca jógee danañ dem jàkkaarloo bul bulgarie yi buñ ca jógee danañ dem jàkkaarloo ñeneen donc contrepartie dootul am en ce sens peut-être association bi mën na affilié wu par contre. Manan pa matan, ta mounou mounan wap. Mm-hmm. Ti sansou, bes mouni deme ba afilye wap. Mm-hmm. Par forse sen dole. Sen dole de len koy mani. Len di may, mouni diskute te deglou wile. Waou, waou. Euh, I founi tok ki tawali. Paske nek, mouno mm-hmm. yore pli de 500 route. Nyou bok par exemple, ti tel asosyasyon, afilye wap, bat be represente ki. Paske te di... Mm-hmm. Euh, xeetu pays de l'Est yi amuñu ñetti nit yu mm-hmm. booloo. Mm-hmm. ci association syndicale yi lañ bokk. ñi autre à appartenir à l' association syndicale ñoom dañu am seen pour bopp boo xam ne dañu boole ñu xam ne ñi ay routier lañ. su boobaa dañuy aajo par exemple ñu mën a discuter yenn contractation de seconde niveau lay surtout. nga xam ay lu xeetu ay ay ay ay ay waaw justement contratation territoriale bi lu am solo la loolu moom eh, conseil la eh, ñun en tant que syndicaliste mën nañ leen mën nañ leen mën nañ leen jox conseil boobu euh, parce que contratation territoriale yéen da di joxe seen xalaat par rapport ak expérience ñu nekk ci territoire boobu euh, joxe seen xalaat mooy gën a yokk seen i ngëneel gën a yokk seen yeneen ak yeneen pour que ci biir contratation territoriale bi chauffeur si nga xamante ni dañoo nekk au niveau de euh, Firenze dinañ am ay ngëneel yoo xamante ni contrato nationale bi du leen ko jox. te xëy na association bi amagul doole pour jàppandi ci yu ni mel. Euh, waaw bu ñu démarré foofu foofu moom vraiment. moom bi aussi dañ ciy conseillé bu baax a baax. benn laaj la bu ma sëñ Ibrahima Thiam bind. Mhm. ni ma. ah gaañ ngi commencé bind. gaa yaa ngi laaj mu ne ma dafa am demande bu mu bëgg laaj gaa yi mu ne. Mm-hmm. Euh, ñu ngi tudd chauffeuru euh, pays Europe de l'Est yi. ñëpp xam mm-hmm. nañ leen ak roumains yi nga xam ne ñoom dañuy ñëw dëkk ci biir bus bi daanaka ñoom ñoo diméjare salarié yi nekk fii. Mm-hmm. ñu ne léegi menace boobu yéen chauffeurs yi nekk fii na naka ngeen koy affronter parce que boo xoolee. chauffeur si dañ daan fayee ko ak léegi wàññeeku nu bu bari. ban taxawaay ngeen ci am ak benn ba ba nag ngeen koy euh, jàppande. <laughs> sëñ Diouf salaamaaleykum. waaw euh, sëñ Pape maa ngi jégalu bu baax xam naa di ziare routier yëpp mooy gars yi taxaw ci parking yeeg nekk ci Pierre Sallé yeeg ñi daw ñëpp rek ñu leen di ziar. Euh, naa fi ngeen fi sëñ Jonk bàyyee noonu rek ci wàllu contrat parce que association bi bu mu sosoo. bala ñuy ñuy àgg ci mbirum contrat yi d'abord dafa am chauffeur loo xamante ni da koy soxla mm-hmm. ndax masalan tey ji ni tey problématique yi nga xam ni moo gën a bari tey mm-hmm. am permis nii rek jóg dawal yombut comme ni mm-hmm. yombe woon bu jëkk bu jëkk da ngay am permis gis sa benn waay wala gis sa benn kii mu ànd ak yow quelques jours nga mën a dawal mu boole laa kàpp wala nga boole laa kenn nga dawal loolu léegi amatul Mm-hmm. parce que loolu loi da koy tere. Mm-hmm. te métier mi ñu nekk euh, contrat yi léegi comme ni ngeen ko xamee en tant que syndicaliste euh, bari na jitaay yu bëri pour ñu signé loolu loo xamante ni xañ na contrat yi xañ na dañuy dem ba ca biir ñu jalgati ko. te mm-hmm. léegi dañ koy jalgatee ci suñu biiru liggéey. dafa am lu euh, euh, lu lu code code code de la route nu mu ko réglementé ci heure de travail yi ñu war a def muy heure de septimanal yi heure de pampeur yi nga war a pause yooyu yëpp mu ay mbir yoo xamante ni euh, yu bëri contrat bi sax mën na mën na mën naa leer nañ ñu bind ko mais yow boo xamul wala nga jaxasoo ñu la xamal foo toll dañ lay spectaare di la nax di leen liggéeyloo ci heure yoo xam ne ni waroo koo def di la risque yaaroloo sa vita wala ñu lay risque yaaroo patente bi nga xam ne yaa ngi ko yore ñun d' abord bu ñu booloo bi ñu booloo actuellement nii nga xam ne serveur bi léegi am na serveur yoo xamante ni fi ñu doon liggéeyee euh, ñu ngi mm. liggéey ci condition yoo xamante ni tey gaaru ceer bi moo tax ñu mën a yeewu ne lii kat ñu doon def du lu normal dañ leen ko daan defloo mm. serveur bi tey bu masaa xëy taal camion bu amee problème tey mën nga xëy taal sa cabion rek bala ngay départ gis anoon euh, problème boo xamante ni soo xamul lan la wala nga xamoo nooy def boo risqué rek tali bi mën ngaa finire ah. euh, ay problème yoo xamante ni dootul jeex bu mukk mais ak mm-hmm. gaaru ceer bi bi mu taxawee ak foo mën di nekk ci àdduna boo xëy ci sa camion problème boo jànkonteel wala problème boo gis muy goasta wala loo xamee sa capot da la koy def loo yow am nga fooy référé wu ñu leer la lu daan ci article ah. wala ci expérience bi du nga xam ko doo ci leneen li mooy liggéey fi mu toll nii comme ni suñ tong doon wax noon li nga xam ne mooy njëkk a nekk solos gaaru ceer bi mooy foo bëgg censé liggéey tey dootoo am problème mu ne kat damaa bëgg a jóge Parme dem Bergama wala dama ñàkk liggéey ndax saabo boo xëyee ne aw ma liggéey Parme léegi nga gis maanaam ku la jël ci suuf boo wutal la liggéey Parme wala mu sag saa bu saa boo xëyee yaa ngi gis benn offerte de lavoro euh, mm-hmm. ci panel bi nga mën a jël numéro ba woo ko mën fa dem li nga xam mhm. moo jëm ci wàllu syndicalisme ak wàllu avocat yooyu ñu njëkk def comme li wax ñu jéem a wut ay pôle d' avocat yoo xamante ni dañ cee dox pour nga xam ne dañuy am niveau d' européen nga xam ne fu membre nekk tey mënoo jël benn avocat xëy day dëkk Bergamo mu lay traité benn problème bu nekk Rome waxuma la Europe rek mais mënoo am benn mhm. avocat bu dëkk Bergamo mu lay traité problème bu nekk Rome dèjà problème day commencé wala ay espèces ñu ngi commencé taxaw yoo xamante ni de plus lay doon hmm. ci li nga war a fay ndax avocat bi bëgg a jógee Bergamo ba Rome loolu euh, xam nga ne ay dépense la yoo xamante ni da ko hmm. Hmm. léegi ñu taxaw wut ay avocat yoo xamante ni ñun dañuy am nekk ñoom ay ay partenaires yoo xamante ni tey cas buñ mën di am ñoom ñoo koy tati moo xam mu nekk loolu yëpp nag euh, pour ñu mën koo finir wala ñu àgg fa dafa amoon lu jiitu lu jiitu woon mooy ñu ñu nekk d'abord maanaam ñu nekk association ñu nekk mbooloo moo xam ne bu ñu waxee ñu dégg ñu ndax comme li ñu wax ne boo xasee nekk mbooloo yow euh, loo bëggul sax loo bëggul rek dang dang dang da loo loo amul rek da nga koo bëggul moo tax hmm. liggéey ci nañ booloo d'abord structuré wu booloo taxawal association bi bu ñu paree nag li nga xam ne dañ koy soxla ci wàllu moo xam avocat la moo xam syndicat wàllu syndicale la moo xam lu mu mën di doon ñu door a dox mën leen a rapproché xool nag na lañ amee benn partenariat ak seen syndicalisme bu mu mën di doon ci ñoon ci ni ñu bëgg a doxee ak li nga xam ne moo ñu arrangé ci ni ngeen ko xamee ndax secteur bi ñu nekk ci wàllu transport ni ngeen ko xamee ci biirum syndicalisme itam dafa bëri ay syndicat yoo xamante ni itam bari nañ ñu wax te demewut ak la ñuy def te secteur bu complexe na boo xam ci côté bopp moo tax ñun li ñu war jëkk a jiital mooy ci wàllu social taxawu sénégalais yi ci ki nga xam ne day dund métier mi te saa bu xëyee am na lu muy soxla ci métier mi ndax permis léegi am permis xëy di dem rek Euh, dafa am leneen lu mu laaj da nga war a aggiornare wu codice stradale bi dañ koy changer guddi ak bëccëg donc hmm. saa su am na nouveau codice stradale bu génn boo xam ne ni da war a mettre à jour ci euh, loi boobu ba doo mën a esbaliyaare wala doo mën dugg ci loo xamante ni ëllëgi si biir dina la ngir ay jafe-jafe loolu tamitam panel yi nga xam ne ñu ngi ci nekk ñu ngay ànd ak ñoo xamante ni vraiment euh, di organiser ay débat ci question yoo xamante ni nit ki saa bu xëyee ñu ngi koy posé ci biir métier mi wala Euh, loi yu bees yi nga xam ne ñu ngi koy ñu ngi koy def ñu ngi ko fay dugal di ko waxtaane ba heure bi moom bu dee yaa ngi déglu panel bi à chaque fois yow yu bari dina leer ci sa bopp ba yu bari nga daan def wala ñu la koy defloo ci état bi ngay liggéeyee dootuñu la ko hmm. mën a def parce que am na benn association boo xamante ni yu taxaw di la jàppale ca côté boobu euh, suñu liggéey daal li ci jiitu woon mooy mooy pour ñu taxawal loolu te loolu vraiment ñu ngi ci sant bu baax dañu hmm. ko lancé léegi ndax première assemblée générale bi ñu def mois de juillet bi passé lañ ko def de vingt mm-hmm. donc bi amagul un an ko taxaw léegi léegi surtout euh, daanaka ci ay mois la tool donc yàlla dimbali ñu nag euh, vraiment ñëpp nag cinq cent quatre-vingt-dix membres yi ñuy wax yëpp ñëpp nekk guñ ci membre actif ñëpp mm-hmm. ñi daanaka lu ci ëpp ci ñoom ñu ngi adhéré wu ndax membre actif mooy da ngay dagg carte membre adopté wu nangoo tënku ci li nga xam ne mooy règlement intérieur bi nga xam ne ñun définir nañ ko ba ne nii la ñuy ku ciy bokk nii nga ciy bokke loolu naa mhm. bu ñu détail jomb dinañ leeral. ak euh, mhm. mbokk yi ñu déglu mel ni bëgg nga xam ne mooy coordonnateur général bi ñu koy nuyu passage ak euh, Serigne Seye mi nga xam ne mooy trésorier général bi yëpp ñu ngi war a dugg ci émission bi xañ na dañ mën a dugg ci détail yooyu. ci jégalu ah, mais sëñ Modou. sama laaj bi mel na ni tontoogu leen ndax du man maa ko laaj dafa am ku mu ci yóbbante mu di wàllu corso euh, euh, corso bi nga xam ni moom la chauffeuru pays de l'est yi di def nga xam ni dem na ba léegi poussé sénégalais yi ñuy accepter yenn contrat yoo xam ni jaaduwul est-ce que yéen am ngeen ci benn taxawaay ak naka ngeen ko gisee benn ah, mbokk ñun tax euh, tontu boobu ñun taxawaay bi ñu ci amee mooy tey képp ku di sénégalais nekk ci gaaru ca bi te doon li ma wax sama kàddu sànq doon liggéey ci yenn façon yi yenn condition yi ndax loolu sax wàññeeku na léegi ndax Europe de yooyu fi mu toll nii ci li ñu gis ñu ngi rentré wu see ñu ngi retiré wu ci seen dëkk yi ndax gis nañu ne noonu li convenu piw eh, conditions yi ñu daan liggéeyee fii tey agenda bo dugg tey ma nga am problème mu serveur donc yooyu moom eh, situation réglé na ko maanaam jamono fi mu toll nii ci eh, métier mi ñu teg ni ñu ni ni mu soxla ay serveur lu bari léegi ñu ngi réglé wu ndax li taxan mu mënoon nekk jamono jooju boo gisee détails yu bëri dañoo spostare woon euh, Roumanie wala euh, ci pays de l'Est yi pour ubbi fa agenda pour mën a am ay dépendante yoo xamante ni dañ leen di fay salaire yoo xamante ni comme ni nga ko waxee mais yooyu ñëpp kumanti gis nañu ne lu wàññeeku bu baax la gaaru ceer bi nag képp koo xam ne da nga cee nekk di liggéey ci condition yooyu moom euh, te ñuy xam condition yi ngay nekkee ñun la ñu mën a def mooy saa bu ñu xëyee chauffeur bu ci bokk mm-hmm. di liggéey ci yenn conditions yi te ñu xam ko wala nga wax ko léeg-léeg nag yi mënoo xam kenn ku nekk condition yi muy liggéey wala salaire yi muy fayeeku loolu duñ ci mën a àgg mais nag li ñu xam moo xam ko mooy kuy liggéey ci yenn condition yi te ñu xam ko te nga bëgg a changer liggéey wala nga bëgg a dem ci yenn condition yi wala nga nekk ci yenn jafe-jafe yi ñun ñuy taxaw pour yee la pour xamal la jaree sax ñu wutal la liggéey te ñu ngi koy def tous les jours wutal la liggéey bu ko gën boo xamee ni yaa ngi nekk moom dañ koy def te itam wax la la nga war a mën a am ak lay say droit ndax ñeent ñi léeg-léeg pour ñu koy def euh, wala leen obligé pour ñu def ko mais léegi nii la situation obligé parce que képp ku am expérience yor nekk chauffeur boo liggéey ci yenn conditions yi daf laa mm-hmm. ndax tay bo xëyee ci bidaa bo bàyyee bala ngone ñu ngi fukki ñu ngi ñu euh, boo ci internet bi wala garu ceer bi tous les jours ya ngi gis nit ñi di def recherche euh, autiste donc yenn condition yi ku ci liggéey actuellement. neex sëñ Diop sëñ Diop maa ngi jégalu maa ngi jégalu ma ne bul tax xam naa patente boobu sax maa ngi jégalu sëñ Pape Fall ni ko sëñ Modou hmm. waxee au delà muy nekk problème mu suñu problème ñu sofër yi defe naa problème mu imprenditoire yi la jërë nekk ndax boo leen xoole hmm. loolu bu amee imprenditoire yi moom moo ci gën a yoo la bokk ñenn yi ñoom ñooy gën a ci loolu parce que bu fekkee ne eh, am na imprenditoire yoo xam ne eh, li ñuy fay chauffeur bi dafa gën a tuuti loolu dafay bokk ci li nga xam da koy dimbale pour mu def concurrence illégale ci la ci ci yeneen yeneen yaa ne ñoom la seqal secteur bi. Hmm. nga xam ne ñoom dèjà problème boobu seen problème la njëkk ñenn ñi bokk ñoom ñoo njëkk nag seen problème. Eh, yàgg nañ ko xeex yàgg ko defaan mais sur le plan européen Bruxelles xam ngeen loolu ay convention la yoo xam ne ñoom ñoo ko signé parce que problème bi tax du du la fekk ñu leen di jël fii di ci yenn prix yi yomb yi mais dañuy dem mhm. par exemple mel ni Roumanie wala nga dem euh, Pologne nga ubbi fa coopérative di embaucher foofu ci ci ci ci ci ci ci ci base salariale yi nga xam ne moom moom moo nekk ci dëkk boobu noonu ñu ko seen kii tëjkee nga xam ne à ay ay mine naa nga yor pare camion yi daw fii en Italie donc ñun problème boobu dépassé nañu xëy na peut-être phénomène la mais nag euh, defe naa ne imprimeur ñoom ñoo ko jën a xeex waaye comme ni ko suñ mot di waxee ba tey dàqul dàqul ne euh, instant bii nii ñu toll ku ne que soit en Italie que soit partout en Europe bu lay wax mm-hmm. euh, carence bi <laughs> maanaam dafay dépasser de loin l'entendement parce que en Italie ñu en France 50 mm-hmm. cinquante mille. Belgique même chose donc phénomène la mais pratiquement wàññeeku parce que léegi daanaka lu euh, euh, Bruxelles mu ngi mu ba tey ñu ngi am yaakaar na xëy na peut-être moom incha allah rabbi bientôt mun mun naa jeex am naa ci yaakaar baax baax. incha allah sëñ sëñ Pape kon xam naa ni ñun moom bu subaa dinañ commencé dem defi patente. dugg ci serveur si. <laughs> waaw xam naa rek damay damay ah. damay lancer appel di wax mbokki auditeurs yi. waaw ah. bëgg dugg vraiment am laaj booy laaj ndax euh, Facebook bi gis naa ni mbokk yi ñëpp ñi ngi ñi ngi ñi ngi ñi yëglu di ziar. waaye nag léeg-léeg dugg tam ànd ak ñun bokk laaj yi dafay am solo. ndax euh, vraiment euh, lii ñu def nii suñu mbokk yi euh, lu lu lu am solo la et puis c'est à saluer ndax boo xoolee jamono ji ñu nekk fii mën naa ni il font partie des pionniers ndax bari na sénégalais yi fu ñu nekk foo xam ni ñoo fa nekk leader mais nanguwuñu jiite ci lenn jiite bi mooy xam nit boo demee ci dëkk. Euh, yor benn métier nekk fa da jël sa responsabilité tey jii euh, boo gisee sénégalais communauté sénégalaise nekk mm-hmm. ci gannaaw ci ci dëkk yi comme communauté parce que nag dañu jëlul sunu sunu avenir en main tey jii secteur yi nga xam ne ñoo ko dirigé damay joxe exemple xoolal dëkk bi ma nekk mu di euh, Pisa nga xam ni histoire Santa Croce boo nee Santa Croce deri lu ñu lay njëkk a wax sénégalais yi mais tey jii sénégalais yi da fa dem fekk fa Sénégal yoo xam ne liggéey nañ fa trente ans mais mm-hmm. tey munoo fa fekk benn société boo xam ni sénégalais moo ko moom te loolu dellu ginnaaw la sëñ bi ak mm-hmm. ñàkk booloo parce que nag tey jii euh, toll nañ ci société globale boo xam ni mais sénégalais war na mën a ñëw fii tey jii sénégalais yaakaar nañ ni ñun boutique rek la ñu war a mën a am wala boog chargé conteneur yooyu la ñuy ubbi société mais société yooyu du feeñ ci dëkk bi daanaka fii te bokkul ci économie bi moom la ñuy woowee économie sommaire so boo xam ni du feeñ mhm. fenn tey ji man damaa gëm ni dëkk bi bu ñu bëggee ñu respecté ñu dañu war a taxaw ci catégorie yi nga xam ni moom la dëkk bi di représenter ndax nag boo xoolee dëkk bi dañu nekk dafa nekk ci pan bu métti Europe Europe yëpp Italie tey ji Italie sànq rek maa ngi waxtaan ak sama mag ndeysaan Maguette Simal professeur bu mhm. may jox ay données ni ma xoolal Italie

mais ñun immigré yi pour ñu mën a tontu liñ ko def toog xoole dañuy jóg liñ fi yor ñu wane lii ñoo ko yor ñu téel ko suñu bopp man dama mënul comprendre tey jii société bu sénégalais wala émi sans émigré nekk euh, te jiite ñu nekk ñu leaders yi mënta nekk bu amee rek y un problème te ji hmm. chauffeurs yi nekk fii euh, monde agriculture bi xoolal tey jii maa ngi maa ngi maa ngi incliné wu ci mémoire ñeent ñi nga xam ni ñoo faatu fële ci ci ci ci accident de travail. ay secteurs yoo xam ne tey jii euh, secteur agriculture mais war waruñu nangu teji, jii kenn di ñu discuter bu may wax par exemple ñu ñun ñoo war a toog ci euh, ci ci table de négociation parce que nag dañoo bàyyi la ñu moom ay nit yëkkati yi teel ko Teji jii boo xoolee COBAS yi ci commencé di récupérer immigré yi parce que boo leen xoolee maa ngi gis Milan mu am soulèvement ci secteur sécurité sa secteur mais sénégalais yi ñoo ko yor est-ce que jaadu na yi euh, ñu leen di ubbiloo ay parti te IVA ay tubaab nekk yeneen dëkk da gis man yor naa fi Toscana ay ay ay ay sénégalais yoo xam ne dañu nekk ci supermercato yi ñu leen jël mosuñu leen a gis dañ leen ubbiloo parti te IVA nekk Milan wala nekk Veneto defal leen contrat ñu liggéey fii ñu leen di fay Euh, euh, euh, par par mais loolu mooy mooy mooy xayadi loolu mooy xayadi tey ji di tàmbali dañu war a nag taxaw teg leen ci yoon ngeen wut ay kayitu wóor jël ay nit man damay gëm ni da ngeen war a jël seen ay ay morom sëbër ngeen former leen ñu dugg ci syndicalisme bi nekk seen i représentant ñu ñëw nag ñu ànd ak ñun ñu doog ko war a mën a liggéey waaye boo leen bëggee jëlaat yi fi di ko di ko di ko di ko di ko transféré ay nit mooy mel ni ñun immigré yi dañuy jóg toujours di jox ay tubaab ay liggéey yu bees te nag man nag loolu wax dëgg fa yàlla nangu ba ko sëñ moom non suñ euh, euh, suñu objectif euh, boo xoolee association bi comme loolu nga xeex noonu ndax dañoo gëm ne dëkk bi dañ cee bokk nekk ay professionnels yoo xamante ni secteur bi ñu nekk koo ci jël tey mën naa gérer secteur transport de solo ci compétence ba mu amee ci liggéey bi bëgg a demal suñu bopp xeex loolu ndax ñun ñi kenn ku nekk ci ñun da bokk ca dëkk ba nga nekk ab association mais comme gisuñu ci suñu bopp ci li nga xam ne lañ soxla ci la ñu taxaw créer yi domaine boo xamante ni laal nañ ko rek boo gisee actuellement ni rapproché benn ci euh, forme wàllu syndical syndicalisme wala secteur yu demee noonu dañoo gëm ne dañoo war a mën a demal suñu bopp fajal suñu bopp suñuy soxla moo tax ñu taxaw te loolu nag comme ni sëñ Ndiongo wax sànq mënoo tëbatëb rek ci réew mu organisé woon nii yenn niveau yi nga jékki-jékki rek àgg fa lu nekk dafa am fu muy départ d' abord il faut que ñu xam yow yaay kan te bala nga naan naam da nga fay nekk da nga formé wu associé wu ba pare lépp loo xamante ni réew mi nga nekk la muy ay loi dañoo tënk ñu tënku ca loola door a mën a jóg nag dox jëm ca jëmukaay bi nga xam ne fañ jëm ndax bu ñu taxawee ne association à à APSE rek buñ ko tuddee aw aw tour la noonu rek maanaam aw yoon la dafa am dëkk bu ñu jëm te dëkk bu ñu jëm nag mooy loolu nga wax dañoo war a mën a àgg foofu ndax am nañ ci suñu biir ay transporteur suñu biir am na seen du ñëpp du chauffeur am na ay transporteur yoo xamante ni ay ay patron ci na yu liggéeyal seen bopp ñu ci suñu biir ñëpp a ngi suñu biir te dañoo gëm ne nag sénégalais yi comme loolu nga wax secteur bu mu nekk bu nekk muy bii nekk war nañ cee mën a nekk leader ci wàllu transport di defal suñu bopp loolu bokk na ci ah, yéene yi ak bëgg-bëgg yi nga xam ne war nañ faa dem mais li ci jiitu nag mooy ñu fexe ba sensibiliser suñu mbokki sénégalais yi ndax bu ñu association bi nii rek ñun ñi nga xam ne la ñuy tudd dañoo ko xalaat jékku ñu koy xalaat ko rek euh, ñëw organiser wu kii nekk président ki nekk laa non dañoo nekk ci ab bi liggéey ñu demee ba mbooloo mi nga xam ne gis nañu ne kat lii lu intéressant lañ ñu ndaje mi njëkk a def ci Brescia bu ñu fa dajee keroog man mi ba may xëyee sama kër wala Serigne Jong mi bu ñu xëyee këram kenn jàpp ne ci bu ñu fa àggee dañ fa taxawal ab bureau dañoo jàppoon nag bu demee nañ tafar benn commission pilo boo xamante ni day piloté liggéey bi euh, pour ñu mën a euh, avancer pour li ñu bëgg ñu mën koo def ba ñu àggee ñu fekk fa ay mag yu baax mën cee tudd ku mel ni sëñ Cheikh Abdoulaye mi nga xam ne moo jiite mag yi ne ñoo jiite ñoo nekk ci gaaru ceer bi muy ak ku mel ni Baye Amdi Diop sëñ euh, Cheikh Mbacke Diakhoumpa Baye Massamba Niang Toscana Baye Samba Sow sëñ Moussa lim bi magi chauffeur yu baree bari nga xam ne mënuñu leen a lim ñu ci biir ñu ne nag lii moom dem ak ñëwaat moom mënu cee am da doy ngeen ñu te matale ngeen li ñu bëgg ñu def ko da taxawal bureau ñu fal fii tey président ak li mu war a àndal yëpp commission yëpp ñu dox jëm li ñu war a jëm tey nag am na loo xamante ni mënoo jékki-jékki rek euh, taxawal ko euh, mën a àgg euh, atteindre yenn objectivité amul foo jaar ndax comme ni la ko waxee première première assemblée générale bi ñu def ñu ngi ko def le 20 juillet bi passé donc association bi amagul bu ñu ko defee première assemblée générale bi léegi amagul sox trois mois donc comme yooyu ngay wax nag lu ñu gëm la loo xamante ni dañoo jàpp ne luñ ci soxla tey dañ ko war a defal suñu bopp te ci loolu la ñu dox jëm wóoruñu rek lu ñu soxla ñu dem ci bureau tubaab mm-hmm. euh, mu defal ñu ko ndax tey statut bi nga xam ne dañ ko bind tey ñu ñoo bind lépp ah, tey sëriñ donc nag ñu ko àndal ak muy règlement intérieur yëpp ñu ñoo ko définir defal ko suñu bopp mm-hmm. benn tubaab bu la ne mën ci defal yi amu ci donc li ñaan rek muy sénégalais yi muy chauffeur yi nga xamné surtout ñu ngi ci ndax ba légui gaaru ceer bi am nañ ci nek ba légui te nekk ñu ay membre ñu xamné liggéey bi euh liggéey la bo xay ñun dañoo gëm ne li nga xamné daf ñoo metti nga am sénégalais yëpp ay victime lañu ci système bi fi nek muy tok di seetaan rek dafa wara a jeex doon ca ñun dañ koy dañ day day jeexe ci ñun sax mais ñi nga xam day ñëw ci ëllëg suñu ginnaaw ñëw fekk fi loo xamante dootu ñu nekk ñoo xamante nii rek ay consommateur la ñu nekk rek wala ay opéra yoo xamante rek dañuy jël ordre ci ñeneen loolu moo tax ñu taxaw war nañoo ñu gëm ne war nañoo mën a jógee ci situation bi ñu nekk. Mm-hmm. waaw dafa mel ni dañoo am gan. salaamaaleykum. maaleykum salaam mbokk mi kooku. mbokk mi. asalaamaaleykum. maaleykum salaam waa rajo bi man maa ngi tudd Serigne Seye. cay waay sa moom de est-ce defe nga ko maa ngi woote fii ci Brescia dëkk bu ñuy wax Chiari mhm. di woote sama dëkku sama dëkku jëwriñ la woon Baye Matar Diop ak Baye Modou loolu ndeysaan wax nga dëgg wax nga dëgg nekk euh, le trésorier de de l'association mhm. donc waroon naa teel a dugg sax bi bi bi sama jëwriñ yooyu di dugg. Mhm. waaye dama ko essayé woon antuwul waaye boobaak léegi nag ñu ngi teewlu waxtaan wi. Mhm, mhm. yàlla noonu ñu waxee rek euh, ba fi ñu toll noonu la noonu la yëf si demee. ñu ngi bokk ak yéen émission bi daal di ci retard bi yéex a dugg gi. macha allah. jërë ngeen jëf. ñu ngi lay dal ñu ngi lay dalal bu baax. sëñ Seye. ñu ñu ngi lay dalal boo mayee ma am lu ci dolli rek. maa ngi jégalu di ziar sëriñ Sey xam naa sax ñun wax dëgg yàlla doon mañ doon nañ xaaraane ku mel ni eh, le secrétaire financier mu sëriñ am di sàmm di ko am solo ci association bi ndax li sëñ moo Diouf doon wax noonu muy information yi nga xam ne ñu ngi koy partage ci groupe bi ci lu jëm ci wàllu métier mi ci loi yeeg codice stradale yi li ci ëpp wax dëgg yàlla mu ngi ciy joué rôle bu am solo moom it ñu koy salué de passage ndax wax deug yalla bari na lo xamne mom def nako yité bopam charge woko and ko ak yeneen bok ku mel seigne dam ku mel ni seigne modi saw nek france ak ñu bari wax deug yalla ñu ngi japp ci liggéey ba nga xamne information dal vraiment mo ñu ngi jall xamna fi seigne seigne tab dem doon waxe fofu lay dem soir ci ci li ngeen ni invité ak ce ñu jima euh impliqué wu dans le système au lieu ñu ñu ñu ñu ñu demander service pourtant loolu xam naa damay wax damay partager idée bi mais en plus dañ leen ci talal loxo ku mel ni yeen nga xamne danaka ay pilier ngeen ci ci biir dëkk bi ñun xam nañ leen xëy na bokk yi déglu ñu bari euh, xamuñ leen waaye bu dee ku mel ni suñu Pape Demba waa Toscana ñu bari xam nañ ko taxawaay bi am foofu noonu ku mel ni sëñ Pape Fall Parma naka noonu ngeen di jouer ay ay ay rôle yu am solo ci biir communauté bi koy njëriñ leen tàllal loxo parce que ñu lii ñu taxawal c'est pas euh, c'est pas dit que ne ay professionnel lañ ci mhm. dañoo gis na rek am na loo xam ne dafa war a changer ñu jiima def les premiers pas comme ni ko sëñ Mourdi waxee nekkul ne ñun ñoo koy acheminer mais gëm nañ ne buñ fi taxawalee dara dox à petit pas ñii ñëw délégation bi ñëw danañ fekk loo xam ne buñ góorgóorloo tuuti rek danañ mën a euh, mucc ci lu bare bare bare bare kon ñu ngi leen di tàllal loxo yéen ci loolu di wax ne ñii bàyyi bàyyi nañ ko xel ñu ngi koy dox ndax mhm. lu mel ni kobaas boobu ko tudd sànq wax dëgg yàlla tout récemment rek invité lañ leen sunu panel ñun soxal bëgguñ dem di inscrire nekk ay inscrit au niveau de kobaas ngir euh, ñu ñuy protège bu ñu soxloo mais dañoo soxloo am ay membres yoo xam ne dañuy jël formation ci ñoom nga xam ne dañuy la place ñu am ay syndicats yoo xam ne ci biir domaine bi ñu nekk dañuy dañuy am xam-xam ca loola su ko defee lépp lu ñuy soxlaate dootu jël service ci keneen mais ñun ñooy taxawal suñu bopp. waaw waaw waaw ma ma ma dog la nag ni la am ngeen ñu leen formé ñoo xam ni soxlawu leen ngeen di génn ci ci biir communauté bi ndax tey jii <laughs> boobu ngeen di wax. Ah. Ah, Pape moomu daal laxtatu. Ah, yoon na bagage yi nga xam ni tey jii boo leen toogoon soxla journée de formation. expert yi formé ci walu liggéey ak walu taxaw ci ci seen droit seen devoir amna na fi loolu moom ndax ni yéen wara war ndax it nak euh, defe naa ni comme euh, formé ngén ba paré euh, mhm. xam ni lolou mom du ñak wax du waxtan bi du waye nak mom euh gis nga moy limay wax rek ñun dañuy défar ay service di jox nit ñi rek ñuy jëriñoo mhm. li ñu mhm. yor mi ngi ci biir dëkk bi mi ngi ci suñu biir communauté nañ leen seet hmm. ñu koy jëfandikoo rek moom euh, danaa ni lu bari mënees na fee soppeeku incha allah. xam nga dafa am dafa am lu lu sëñ Jongo ak sëñ sëñ Juuf wax léegi. mooy maanaam euh, xeetu solidarité bi nga xamante ni dafa am ci biir chauffeur si. Euh, yow it nga ni ci tonet ne leen pays de l'Est yi ñoom ñett sax du mënuñoo dajaloo. ma lay wax ne la gis nga chauffeur chauffeur rek moom moo am solidarité boobu bu dul mm-hmm. chauffeur di syndicaliste mm-hmm. beneen métier boo fi dugg sénégalais bu nekk ci benn diitaa du ñeme wala du nangoo woo benn mbokk sénégalais pour mu ñëw liggéey fa ndax am na lu mu cay suuraale mm-hmm. waaye chauffeur ngay gis mu dem fenn gis mbokk chauffeur ànd ak moom lënkaloo xaritoo juddu fa ba tuddee doom judd fa tey jii yow moomu bokkuñu fa ñu nekk waaye loo xam di ma woo wax ma lu ma xam dinaa la woo wax la mm-hmm. kon gis nga loolu boole ñu loolu ci loolu lañu war a tënku may may may ma ma may firndeel rek nii euh, seen jong yàlla seede na ni déggante nañu sax ci semaine yi ñu weesu euh, ba ma yónnee leen sax lettre CADES bi wax leen ne leen ñu nit vraiment ubbi nañu suñuy buntu te it euh, tàllal nañ leen loxo pour ñu ànd weccante ay xalaat ndax xamuñu lépp waaye li nu xam as tuut daañu ko bokk ak euh, ak suñu mbokku mbokku taalibe yi euh, ba tax na fu ngeen ñu woo incha allah dana ñu def le tout pour mobiliser wu pour ñëw fa toog ak waxtaan ak ñoom ci turu CADES euh, loolu moom vraiment association yi nga xamante ni ñoo ngi biir Italie gi yépp fas nañu yéene gunge leen ci yoon woowu pour que ñu am benn autonomie boo xam ne dina leen mën a permettre Euh, au lieu ñuy tënku ci ay ay ay ay tubaab yi ak yeneen ak yeneen ñu mën di demal suñu bopp parce que fa ko tubaab yi di jëlijee xam nañ ko nañ koy lijjantee ji xam nañ ko moom kayit fa ñuy nasee ji ca kaw a kaw foofu lañ dul mën a àgg ndax ñun euh, àgguñu foofu. mais mais bu ñu tingoo mëntee àgg fa sëñ sëñ Pape. incha allah bu ñu raamee ren. xam nga dañoo doon ay tung ne. moo tax mënuñu faa yegg waaye bu ñu tingoo mëntee dañ koy àgg. dëgg dëgg bu soobee yàlla loolu moom waaw loolu ngeen wax noonu vraiment boo pour euh, dikkaat ci li sëriñ Jong wax rek dama xam naa dañuy jaar sëy muy le trésorier général nga xam ne wax jàlla moom itam liggéey bi mi def liggéey am solo xam naa bu ngeen amee question yu jëm ci lool ñu mën cee indi ak leeral ndax am nañu ay question yoo xamante ni wala lu ñu ñor loo xamante ni vraiment war nañ bëgg nañ ko ñu partager ko ak chauffeurs yi ñi nga xam ne ñu ngi dégg association bi wala ñu ci biir te ba léegi nekkaguñ ci ay membre euh, yoo xamante ni euh, niñ koy xaare amagoon nañ ko noon te xañ na euh, mbir moom moo demee noonu nit ku nekk boo ko déggee da nga ko étudier xool ko càmbar ko ba mu doy la nga door cee dugg ndax association sénégalais yi bari nañ fi waaye association bu ñu créé ci bii forme moom ñu ngi ko fi door a dégg te liggéey bi nga xam ne mooy suñu liggéey bi gën a rëy actuellement ni mooy lu ñu def ba yaatal ko mu law ci chauffeur yëpp Euh, la ca des nag comme mooy li ngeen wax ñu mel ni yéen nga xam ne man mi personnellement suñ pap yaakaar na def nañ ci essence lu baree baree bari di koy bam ba mu mm. taxawee rek làq ko nga xam nañ mm-hmm. seen compétence ak yitte yi ngeen jox liggéey bi ak euh, sénégalais yi nga xam ne ñu ngi fii ci euh, Italie xam ci lu mm-hmm. baree bari man ci suma jëmi bopp lépp lu ma soxla ci yu baree bari xañ na suñ pap mi ñu ci déggoo lu baree bari xam ko bu baax donc loolu mm-hmm. moom xam na xañ na day dafa nekk lu lu ñu àggagut ba defe ko ni ñu bëggee waaye xam nañ ne loolu mooy suñu yéene te mooy suñu mébét ndax bu ñu sañoon lépp rek hmm. dañ koy defal suñu bopp ñun Sénégalais yi ndax loolu ñu gëm ndax ñun ñi tey di wax xëyuñu rek daje ci euh, ci panel yi wala nekk dañoo seq lu baree bari ci wàllu liggéey yi muy daayir yi muy association yi biñ ko taxawalee hmm. tamit tam rek ñu ci ëpp tey ñoom ñoo ci nekk te lu ci bari tey ñoo koy defal suñu bopp ndax suñu mag ñooñu ma lay ñu ñu tudd tey ku mel ni suñu am di sàmb moom muy wax seen daam géey ak ñu bari nga xam ne ci wàllu métier mi lépp loo xamante ni ab chauffeur daana soxla hmm. xëy di jël journée de férié wala sa hmm. patron di la ko tey ji boo duggee ci gaaru ceer bi wala boo leen jotee ñu ne la nii la nii la teg la ci yoon woo xamante ni doo ci dépenser dara te doo ci ñàkk benn heure de travail hmm. te loolu amu te loolu tey am na ci muy benn chauffeur mhm. boo xam ni dafa tuuranke ci àll bi moo waxuma la fooy fanaan wala looy waaye nag ci ci métier mi rek wala nga soxla dara euh, naan damay dem ci sa ndax chauffeur yi amuñu jot lu bëri mën nga toog si nga dem jël journée de travail pour dem ci Pape Demba mënoo koo euh, mënu mënu mënu permettre su mënu mënoo koo def donc tey ak gaaru mhm. ceer bi ki nga xam ne ñoom lañu ànd ci liggéey bi mhm. tey téléphone jël wala biir gaaru ceer bi ngay dugg ndax mhm. am nañ ay jour yoo xamante ni loolu rek lañ fay waxtaane lu jëm ci mhm, mhm. am am jour yoo xamante itam lépp loo xamante ni ay jullit dañ ay taalibe lañ lu tënk suñu diine ak métier ndax ab bu xëy gis ne këram dimanche su ngoon ba samedi di war di julli lépp war ko nan la ko war a defee lan la ko si islam teg ak nu mu ko war a defee te ñu bëri xamuñu ko tey ñooñu ñëpp ñu ngi si am nañ commission boo xamante ni wàllu diine lañu yore di sant ku mel ni Baye Saliou Ndiaye mhm. ak sëñ Pape mhm. euh, sëñ Pape euh, Fejoor oustaz Pape mhm. ak euh, ñi nga ko ànd ñëpp sëñ Jili ah, Diop bu nekk dañuy def di loolu loolu sa maanaam diine ak métier mi ñu lépp loo xam ne dafa soxal diine ak ci métier mi ñu nekk ndax métier mi tam dafa am loo xamante ni dañ ko war a xam ndax ab chauffeur boo génnee sa kër l'islam da ngay wàññi wala li dam war a permettre nan nga wara djublo nan nga wara comporto nga wara bari li nga xam dal dina ko wo ci dinem ay sauveur lañ ay djub mais nak dañ ko wara pratiquer bu tok ba dimanche ba lundi ñi doora ñew samedi ñi doora ñew ci kër yi julli donc yoy yep itam ci waxtan ci walu social ci walu social social manam social ndimbal bo xamni da ngeen koy defante seen bir

lépp lu fi ñëw dañ koy jaayante mm-hmm. am nañ fi kaay yu baree bari biñ ko taxawalee rek soxna ci am faatu bu amee lii bi nii am nañ commission sociale boo xamante ni ku ñuy wax am Amdi Diop di bokk ci mm-hmm. mag ñi dëkk Tambra Brescia boo dañuy daal di dugal benn carte poste pays mm-hmm. eh, pour wax ne la carte poste pays léeg la ñu dugal ko bu weekend wala ñetti weekend rek daajale ci deux mille euros léegi fajal nit ki soxlaam def nañ koy yooni yoon ku ci bokk itam jafe-jafe boo mën di am itam ñooñ ko déggee rek ñoom noonu lañ ciy doxee nga xam ne chauffeur yi bu ñu wàccee samedi rek dañuy daal di kenn ku nekk participer ci la nga mën a participer ñu fajal ko ko yitteem. Mhm. ñu yu ba yi nga xam ne ay mbirum social la ñu ta leeral fii am nañ ko te lu ci mhm. ñëw yi tamit noonu dañ koy saafara. Mhm. pour le moment mën a am yenn fonds yi ñu mën a permettre nag association bi mën a jël yenn charge yi ndax mënoo taxawal association rek commencé di def yenn dépenses yi wala jël yenn charge yi ci euh, association bi te amagoo yenn fonds yi donc moo tax suñu règlement intérieur bi ñu ko tënkee. Euh, dañoo wax ne de deux mille vingt la ñu ko euh, jusqu'à deux mille vingt lépp lu fi ñëw ay jaayante lañ ko tudde muy kenn ku nekk da nga cay def li nga mën pour kooku ñu mën ko faj téem moo xam kii dafa euh, yàlla tere ndog-dogoo dal wala ko fi am nañ fi ñaari cas yoo xamante ni seen soxna dañ fee faatoo am nañ fi xamante ni seen i doom dañ fee faatoo wala koo xamante ni sa waajur dafay faatu yooyu yëpp lu ci ma indi am itam gaaru ceer bi dañ koy ànd ak yow Mhm. wax dëgg yàlla ñu ngi ciy dox lu am solo loo xamante ni xañ na. niñ mhm. ko bëggee amaguñ ko ni waaye bokk na ci suñu paa yu njëkk ci taxawante pour jàppalante ngir ngir loolu mën a saafara. Mhm. waaw sëñ Pape. waaw sëñ Pape xanaa ñu dalal euh, sëñ sëñ Sey moom moom xam naa ni moom moo yor koppar yi. Euh, sëñ Sey ñu ngi lay waaw ndax mu kazaalika ñu ngi leen di nuyu yéen itam di leen nuyuwaat di leen ziara. Mhm. yéen yàlla nangu ziara. waaw sëñ Seydi dañ la man damaa bëggoon a xam ndax euh, ci biir bu gàtt bi association bi euh, toll ci maanaam cinq cent lu ëpp cinq cent quatre vingt dix membres. Mhm. Euh, yow mi nga xamante ni yow la ñu dénk lépp lu jëm ci trésorerie bi. mu doon mu doon nag sas wu diis parce que euh, boo xamante ni da da nekk benn dëkk. Mm-hmm. Euh, di recevoir aussi ay koppar yuy jógee euh, France Belgique fép ci Europe. Mm-hmm. ku ne xam na ni gérer ay koppar dafa xaw a doy waar ci réew mi ndax mm-hmm. yenn saay yi boo xefee sax finance mën naa ñëw fëgg la ndax dayo ba muy toll. jamono bi, manam bugguñu sax wax faire, yalla dugg pour xam. Euh, mhm. ak mhm. euh, mais côté organisation bi manam yow naka naka ngay gérer mel ak association bi euh, sen compte bi dañ au niveau de l'Italie. wala dañ ko mhm. ubbi wala fan lañ ko ak am ay nit yo commissaire au compte danga ci lëkkaloo ak ñoom ci liggéey bu ni mel euh, naka ngeen koy liggéeyee lu ni mel. waaw suñ Pape maa ngi rafetlu question bi nga posé euh, li nga laaj tamit euh, wax dëgg yàlla lu yomb la mën na nuru difficile mais wax dëgg yàlla lu yomb la lu tax mu yomb mooy association bi niñ ko mm-hmm. tëggee la. Mm-hmm. maanaam dañ ko structurer de façon à ce que pour nga def liggéey bi dafa yomb mm-hmm. commission finance bi nga xamante ni moom lañu ñu euh, nuñ koy moom la moom la ñu bokk mu ngi mm-hmm. constitué président sëñ Amdi Samb ñu teg ci ñetti trésorier muy jëmm ji di wax ak yow Serigne Sey sëñ Modou May Diop Bergamo, mm-hmm. ak Seigne Dame Diop Seigne Dame Gueye euh, Lekko mm-hmm. ñu ci ñetti réviseur yi day compte mm-hmm. muy Abdoulahad Bergamo sëriñ Khadim Bey Parma ak Diop Asti groupe gox yi nekk fasantikoo na lool mm-hmm. waaye terewul fii àdduna bi toll ak technologie bi fu mu toll mm-hmm. mën nañu toog di liggéey mel ni ñu ngi toog ensemble mm-hmm. ci benn sax ah, allah ndax li may def li koy firndeel mooy sunu émission bi rek mu goog <laughs> émission bi firndeel na ko loolu moo tax ma ni liggéey bi nuru na lu compliqué mais lu simple la Te struksyrasyon bi madon wak itamit, likoy fundel mwoy, euh, asosyasyon bi ti bopam, gina w bi mi ameke di mwara amyep, dafa am kontu bopam. Ti mm-hmm. kontu bopam pa mwabou, ki le khalis di nyon. Man le trezorye, ki mwen yon yon, mousouman lal khalis ou ben mamb. Le plou dougou ti kontu bi via bonifiko de nyon. Mm-hmm. le trésorier amul accès ci compte sans passer par le président de la commission muy Amdissam. Amdi Samb hmm. par exemple euh, strato compte il faut euh, euh, ma le président de la commission dise jox ma clé bi may pour ma def strato compte -hmm. le président de la commission lui-même amul crédentiale crédit koy ci biir compte bi hmm président bi tok ci réunion ci émission bi di wax ak yow amuko le secrétaire général aussi amuko machallah donc rôle yi dañ ko diviser de façon kenn mënul def lu ko neex. Mm-hmm. loolu moo tax man la liggéey bi euh, dafa lu difficile mais dafa yomb. Mm-hmm. réviseur yi di day compte tamit ci règlement bi ñoom am nañu possibilité di dugg ci compte bi mhm. di vérifier mhm. euh, li li nekk ci compte bi ak mouvement yi sans mhm. temps passé par le trésorier ni par le président de la commission te clé bi nga xamante ni moo leen di may loolu tamit clé boobu loolu dong lay mën mën opération donc euh, allo. allo waaw. dafa mel ni dafa mel ni dafa dafa woon. dafa am mbokk beneen mbokk nekk ci biir. waaw sëñ Xaas Diop moom moo moomu doon woo moom ci la bokk. waaw ah. bisimilah rek maanaam maanaam li laaj balaa ñuy dem. ndax yéen mhm. seen mandat am na ay vincole yoo xam ni par exemple dañuy ne président bi amul droit am plus de deux mandats parce que nag boo leen xoolee. da daa daa ñun communauté sénégalaise mooy toujours. ku du nangu ñu folé d'accord accord nak euh, ni ñu tëralee association bi yoy xamna naa secrétaire général mo ci gëna mëna mën a tontu mhm. ci mëna wax ci gattal moy mandat wu bureau bi nga xamanteni ci réunion 20 juillet 2019 bi nga xamanteni bi ñu wote assemblée générale gaay ni ñu joggé fu nekk ci Italie mhm ci lañ approuvé bureau bi ci la mandat wu bureau bi démarré officiellement hmm. di durer trois ans hmm. trois ans le bureau bi di durer hmm. après trois ans assemblée générale mooy falaat beneen bureau voilà léegi nag li nga doon wax ci wàllu di jëm ci comptabilité bi ci mën a wax ngi commencé raconte Fondi mm-hmm. le jour euh, de l'Assemblée générale. Mm-hmm. mais jour rek li ci ci nit ñi nañ yu wax fa yalla man jour euh, dama dama dama dama dama ci am Mhm. ku ne paasal boppam. ñoo paasal seen bopp. waaw. Ah. gis fa ku jóge gis fa ku jóge asti. Mhm. gis fa jóge Treviso. Mhm. gis fa jóge faan faanu faanu. daal at noo nga xamante ni nga xam ne maanaam passion bi yëkkati nit ñi ba nit ñëpp ñëw wuyu si keroog. wax dëgg fa yàlla lu yéem man mosuma ko gis. parce que association mais association boo nga xamante ne association bu bu bu maanaam territoire national bi yëpp la woote. Mhm. loolu man mësuma ko mës mësumaa gis daal nit ñi wuy see ci association wuy si bu demee noonu. loolu su bopp tax na ñun ñu toogoon ci taabal ji muy ñi ma la limal sànq na ñoo composé commission finance bi. Mhm. jour boobu lañ fa récolter rek. Mhm. ci romb na douze mille euros ci benn woote. Mm-hmm. fii may wax ak yow nii membre yi nga xamante ne ñi ngi jox euh, ñi ngi joxe seen i cotisation te cotisation yaa ngi ñëw mm-hmm. deux cent personnes yoo xam seen mm-hmm. cotisation mat na fi ñu toll nit ñaa ngi continuer di cotiser tey jii rek enregistré na ay cotisation yu dugg macha allah waaw kon loolu daal laa ci mën a wax pour le moment su amul beneen laaj bu jëm ci loolu mais mais quand même prévoir euh, par exemple hall diganté Belgique Espagne France voilà, ba Angleterre sax euh hall ndax amna ay chauffeurs yu bari yu fa nek euh, décentraliser par exemple né ah ñun kat nañ génn Italie ñun Italie nañ def jël Pullman dem assemblée générale en France ndax prévoir aussi. Paske yoyi dina bak, dina takhip, nyan tok fwele, binou sentir ben gytidzak si yon edal, yakarni lep rek denko, nyonwa itali denko djerrek, <laughs> akimo ko, lep lenko ideve, nyon nyon nyon, dak yoyi yon imel yoyi, yon yon yon yon, nan lolo bom, yakar oumou kon, dak euh, letak yakar oumou kon mwoy, yo euh, set lo, yo set euh, lo, am nañ ay membres par une dizaine de membres yo xamanteni ni seen i cotisation France la jógee ñëw. Hmm, hmm. am nañu seen i cotisation jógee Angleterre ñëw. Hmm, am seen cotisation jógee Espagne. waaw ci pays yi nga xamanteni gis na cotisation yu fa jógee ñew yoy la ci mëna yoy la ci mëna wax. mais aussi il faut que ñu bàyyi xel que ni association bi euh, ñi ëpp ci ñi nga xamante ni ñoo Italie la ñu nekk fii la siège légal bi nekk sax quoi. fii la siège légal bi nekk. donc à niveau légal am na ci yoo nga xamante ni du mën a comme ay këyitu association bi dëgg dëgg dëgg Italie la nekk boo ma laajoon ne ma est-ce que c'est possible que euh, prochain assemblée générale mu amee Toscana wala mu amee Emilia Romagna wala mu amee euh, mm-hmm. euh, Piemonte dama lay wax loolu lu mën a nekk la. parce que li tax loolu mën a nekk te mën a yomb tamit choisir lieu bi ñu koy defee mooy. ça mm-hmm. dépend ci membre mm-hmm. ban jour ñu ëppee. Mm-hmm. loolu dafay dafay dafay dafay jaadu. loolu xam naa président ak secrétaire général dinañ ci gën a mën a indi. ay leeral jëwoon. incha allah incha allah mais euh, président wala secrétaire général man de am na benn question bu ma leen bëggoon a laaj. mais c'est c'est une question bon ça regarde vraiment le contrat des des transporteurs xam nga bi nga fabrique bi dem taxaw ci bi mu xam nga couverture euh, te da ngeen am yàlla euh, damay wax métier bu noble la ndax ki nga xamante ni bu guddi jotee bu nit ñi di nelaw moom mi ngi topp tali bi di daw euh, ñu obligé ko muy taxaw yenn saa yenn saa mu taxaw foo xamante ni sax xam ko miinu ko ak risque yi muy courir yooyu yëpp est-ce que période bi nga xamante ni INAIL mi ngi couvrir mezzoora euh, pour laboratoire bi dem ci diitaawam mooy percorso itinéré boobu ak wara bi mi ngi retourner kërëm ak infortunio infortunio moom sicuramente dina dañ leen koy fay mais couverture boobu itinéraire bi parce que yéen seen itinéraire dafay ndax mën nga dem charger la spécia dem décharger ji genova ñu la mën nga karikaare ji feneen ak feneen euh, maanaam am na sëfër su bees coo xamante ni xëy na jële jóge nañ sénégal mën nañ dawal rek te amaana ñu ñuy déglu ñooñu Euh, yoy est-ce que egg nañ ci est-ce que la du laaj parfois aussi yenn formation yi euh, wax nañ ko sànq ne ngeen di ngeen di def ay formation ci biir panel bi mais est-ce que laajul parfois ngeen woote assemblée générale d'information euh, pour aspecto contractuel bi deugantane xool li nga xamante ni moom moo leen di euh ak li nga xamanteni ni seeni diritti la parce que diritti yi souvent patron yi duñ duñ ko mës a wax dat euh, laboratoire euh, dirite yi soit laboratoire bi moom moo koy dem gëstu ji wa ilaa euh, xëy na ñun suñu wàll ñun syndicalistes yi ñun ñooy wax laboratoire yi seen i dirite yi mais est-ce que en tan que association boo xamante ni vraiment nit ñi am nañ ci yaakaar wax dëgg yàlla pour que mu jàllale information bu bu yaatu ci seen i couverture euh, fonds intégrative yooyu ma doon wax parce que am ngeen beneen fonds aussi boo xamante ni moo leen di couvrir ci ci ci santé aussi mooy lu mel ne euh, je me rappelle plus mais Unisalute yéen am ngeen ko aussi Sanilok euh, Sanilok waa Sanilok la tudd mooy sanita logistique ak transport ak yooyu Euh, mais INA yi yéen fan la leen di couvrir ak fan la amatul ay responsabilité ci yéen cest à loolu euh, il faut que tamit bu leerul ci chauffeur si parce que chauffeur sénégalais yi fi nekk ëpp nañu lim bi ñu wax nii euh, ñu ngi ñaan nag yàlla suñu borom ñoom ñëpp ñu luñu te it nañu ñëw jokk kooku c'est un message bu fort boo xamante ni wax dëgg yàlla ñu ngi koy lancer tous les chauffeurs yi nga xamante ni ñoo ngi Italie ñoo ngi ci Europe bi di ñu déglu nañu jokk si ci euh, association bi, ndax li valeur ajoutée la ci ci ci ci askan wi te it euh, c' une forme d'association bo xamanteni limu ni mom mo lëkkale moom moo bari dafa lëkkale tutelaare autiste yi dafa lëkkale aussi euh, solidarité bi nga xamanteni euh doko gis ci benen métier doko gis ci benen métier kon euh, ñu ngi leen di ñaan ñu jokk ci ndax booloo moom mooy doole te it am naa yaakaar ni xam naa ni après après ci loolu lay ñëw ci vision bi ngeen am par rapport à au transport au Sénégal euh, ndax am ngeen ci yeneen vision aussi kooku danaa danañ ci dellu mais bëggoon naa xam daal vraiment couverture bi nga xamante ni INA daf leen koy couvrir par rapport ak Medzora bi muy couvrir laboratoire bi diggante këram ak di taam yéen fan la leen INA yi di couvrir ci loolu allo sëñ Modou allo. bisimilah sëñ Pape. maa sëñ Modou Lamine dafa jàpp. ah dafa jàpp waaw. Lamine dafa jàpp Serigne Ndiong la kon mooy dellusiwaat pour ñëw xëy question yooyu nga indi. muy question yi am solo xam naa dana may occasion ma ma am lu ma lu ma fàttali tuuti parce que <laughs> foofu nga dugg moom dafa nekk partie bu am solo te ñun sa wér si grande hmm. partie jàpp nañ ne amul solo trop.

Mm-hmm. ci keneen moo koy nekk bureau bi même chose euh, saa yu bureau bi tasee euh, am na benn kii bu ñuy wax conseil d' administration moom mooy mm-hmm. saytuwaat liggéey boobu noonu ba euh, remplace remplace ak bureau bi su ko defee même mandat yi ñu reconduire ko wala bokk ñu changé kii personnel bi mm-hmm. côté boobu moom wax dëgg yàlla liggéey na ci côté finance sëriñ say ci baax a baax mais partie bi ngay wax nii xam nga bi may expliqué sànq bi ñuy wax ak waa waa COVAS xam naa ne sant naa ci baax li suñ Pape Demba wax ne xëy na lu avant ñuy dem ci ay COBAS ak yeneen syndicat yi wax dëgg yàlla li ñu doon seet ñun d' abord mooy dans notre secteur ndax am na sénégalais boo xam ne euh, maanaam syndicat la ci parti FIT comme ñun FIT moo ñu moo moo ñu couvrir. Mm-hmm. ndaxte am nañ ci un membre sénégalais. wër nañ ko nag wax yàlla ba sonn mais gisuñ ko woon fenn koo xam ne sénégalais la parce que li ñu bëggoon mooy bala ñoo ut dara feneen. au moins mm-hmm. ñu xool ba xam suñ secteur am na koo xam ne sénégalais te nekk ci mun mun ñoo jàppale ci loolu ba ñu dem feneen. mais lottoon mhm. nañ ci xam fan lañ ko mën a amee. seet nañ ko mhm. un peu partout mais xamuñ ci woon loolu comme bu fekkee na comme mel ni yow euh, am nga ci tuuti xarañ wax yàlla ñu ngi lay tàllaat loxo encore une fois bu baax baax ci loolu. li tax ma ne nag ma mhm. permettre ma waa COAS comme ni la ko waxee. ñun jublu duñ ci dem di adhéré nañ am convention. ak ñoom amee quelques membres mu jëm ci ñoom ñu def formation nga xam dañuy am au moins ay syndicats suñu biir bu fekkee loolu ñoom danañu ko nangul wala boog beneen beneen entité comme COBAS boo xam te dañu ko nangul lu mel noonu. xëy na hmm. ci biir chauffeur si ñoom ñu bari benn instant dañoo dem ba dañoo xam a démystifier euh, euh, kii syndicalisme jàpp nañ ne hmm. à chaque fois boo amee problème syndicalisme très boo def naa sax ñoo lay dugal ba mun nañ la indil fitna yoo xam ne boo yëgoon ci dugg rek demee noonu dañu préféré seet na lañ mën a négocier ak seen dachet labora ba résoudre hmm. seen problème sans pour autant ñu man ñi ma wax ne parce que ñu bari wax ne kon daanaka jaratul dem mooy boo uh, boo amee problème nga dem directement ci avocat man may wax ne à chaque fois dama koy répéter à chaque fois di wax ne loolu baax na mais fexe ba doo dem ci avocat pour man c'est encore mieux. te loolu mhm. syndicaliste doog moo la koy defal. Mhm. moo tax bi nga waxee ci domaine boobu daf ma dama cee kontaan trop parce que il faudrait ñu xam ne comme li ngay mhm. laaj nii ndax euh, suñu domaine. Euh, fan la ñu couvrir ñu couvrir. moom lu ci xam xamee am na euh, may ko jafe laa man dama ko mbokk yi ku ko mën léegi wax li ngay li ngay laaj yu mel noonu indi la yoo xam ne il faudrait ñu am ak lëkkaloo ak syndicaliste yi su ko defee pas di dem di leen fekk ji mais pourquoi pas di organiser ay journée de réflexion yoo xam ne ñun ak ñoom la ñu toog pendant des heures waxtaanee problème bi bare bare bëree bare parce que lu mel noonu donc daanaka lañ doon tàpp ci ak ci antibale di di commence parce que xëy na comme xam nañ ne euh, autiste bi dafa am lu ko ci titularisé moom mooy carte tachygraphe bi mooy li nga ne moom lay dugal ci biir Euh, am na benn kii bu ñuy benn machine bu ñuy wax tachygraphe nekk ci camion bi nga xam ne mooy détecté euh, maanaam activité autiste bi chauffeur bi. Mm-hmm. lépp lu muy def durant pendant foofu la nañ koy registré. donc à chaque fois nga yëg ci merge bi soo dugalee tachygraphe yaa ngi ci couverture boobu noonu. Mm-hmm. comme ni Modou Diop doon wax tamit léeg ñàkk xam dana waral nga dem ci barab nga jënd sa carte lay demee noonu nga xam ne yaa ngi def loo xam ne yaa ngi yaa ngi indil sa bopp parce que da ngaa bëgg a chargé bëgg a gagné ay heure nga bañ a respecté euh, heure de repos yi demee noonu am na ci loo xam ne bu la ci ci diggante bi da nga dul lay pour mën a justifier loolu. Mm-hmm. donc yooyu ay mbir la yoo xam ne tamit lu mel nii moo ñu ko mën a dimbali. Euh, mm-hmm. couverture bi am na mais tamit xëy na peut au fond fond lu bare bari dese nañoo leer mais xam nañ rek ne. carte mm-hmm. bi ñu yor muy tax graaf bi moom mooy li nga xam ne moo ci daal routier tax na à fois. mu yëg ci merso bi daa war a nekk ci merso bi ba keroog muy génn këram wala bokk muy muy muy muy muy tàggoog merso bi. parce que boo mhm. xasee tàggoog merso bo même boo soree merso bi dindi ko te te par exemple merso bi rentré wul rentré wul à une seede fi ngay mhm. liggéeyee. wala boog mu nekk ci barab boo xam ne ñoom ñoo la fa toogloo boo deful nànk loolu sax lañu accusé ci eh, abandon di di di di kii. Euh, el merso nga xam ne loolu mun nga ci am problème ba mun nga ci am solution semaine bu la neex. nga xam ne ay mbir la yoo xam ne léegi ñu ñu koy defloo ci suuf. ngir ñoom seen intérêt la parce que boo demee ci barab say heure jeex ñu ne dina sa carte nga dem sa soo amee euh, boo paree nga dem defar continuer sa pause yooyu yëpp dañ koy wax mais hmm. xam naa li nga wax ni dama ciy laaj soot encore une fois sama mbokk officier ñu bàyyi xel ne am na ci lool mënuñu koo xam loolu dañoo dem ci ci professionnels yi ñi nga xam loolu ñoom ñoo ko xam seen métier la ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ah, ah, ah, comment approché leen ñu apporter ñu li nga xam ne moom moo ñu Mhm. xëy na peut-être le peu de contre euh, le peu bi ngay contribuer à ce que ñu jox la information euh, bu maanaam buñ ko euh, buñ ko amal solo nañ seet lim ñuy rendre ñun moo solo mhm. Mhm. dem ci avocat baax na mais fexe ba doo dem ci avocat pour man c'est encore mieux man ko lay lancé wu daay rebondir pour wax ne nañ ko bàyyi xel baax baax bu fekkee lu mën a nekk la en tout cas daal lu jëm ci Sénégal yi man moom j'y attache te bëgg naa wax dëgg yàlla ñu am ci kuñ ci la baax a baax ku mel ni yéen bu fekkee ne wax dëgg yàlla invité bi ñu leen di laaj su ñu tal loxo bi ñu leen di tal bu fekkee nangul yéen ko incha allah. incha allahu rabbi. asalaamaaleykum. dañ koy nangu waaleykum salaam. sëñ bi ah, noo tudd koy woote. Hmm. waaw sëriñ Xaas Diop la. waaw suñ Xaas xam naa bu ñu mënee tënk nag ndax. su ne nii moom. Euh, euh, xabaabal nañ lu ëpp sax euh, fukki minute ak ah. ci ci waaw. waaw suñ Pape kon ndax xam naa nuyoo rek daal di. waaw waaw bisimilah sëñ Pape Pape Makhtar chauffeur yi moom war ñu fekkee ndax tey jii participation émission bi moom yéeme na yéeme na yéeme na maanaam maanaam maanaam damaa jaaxle ni fra fra interbec eh, audition bi moom yéeme na gars yi moom war leen fekk wallaay wallaay wallaay wallaay métier bi moo noobul métier bi ci boppam moo noobul pa sëñ Pape waaw bismillah ah, ñu ngi nuyoo bu baax a baax di wax ne noo ngi wootee fii ci eh, Piombino Livorno. maa ngi dëkk Mantova. waaw man maay deuxième vice président association bi. ginnaaw sëñ Modou Diouf jëwriñ. sëñ Cheikh Diakhoumpa man maa ci topp. di nuyu Serigne Jong mi nga xam ne moom moo jiite groupe secrétariat bi. ak ñi mu ko àndal ñëpp waaye di baax a baax suñu rakk Serigne Sey. dégg naa ko muy at di leen jaajëfal bu baax a baax suñu Pape Demba. xam naa. du ñàkk nu mënoon a ñëw ci yenn euh, expérience yi sa am ndax nun kenn lan ci ñi nga xam ne def na vingt deux ans léegi ci tali bi euh, boo ko boolee maa ngi ci biir camion bi lu mu néew néew euh, sam lundi ba vendredi lu dul mm-hmm. weeru férié rek ci biir camion laa fanaan kon ngi expérience donte ñi duggoon quatre vingt dix quatre vingt mille cent quatre vingt sept ñoo ñu jiitu ak ñeneen ñi nga xam ne Sénégal lañ doon dawale euh, ñi ngi rafet lu baax a baax xalaat yi Pape Demba surtout xalaat bi nga xam ne laaj nga ko euh, kilifa yi maa ngi leen di bàyyiloo xel nan la ñuy def ba liggéey te bàyyi di créer liggéey ñi nga xam ne ñun ak ñoom benn lanu ci taxawaay te nu war a taxawal loo xam ne koy téye ci suñu loxo ñu ngi lay jaajëfal baax a baax di jaajëfal sëñ Pape Demba bay euh, ci des nga xam ne ginaaw ñaari Pape Demba ngeen ngi leen di mm-hmm. jox Modou Mbaye Thiam ñu ngi lay siyaar baax baax di siyaar yow ñi ko mel ni sëñ Dan ak euh, sama gàmm sëñ di mbég di bég bu baax a baax xam naa duñ mën a ñëw ak suñuy contribution daal dañ doon nuyoo rek ginnaaw mm-hmm. émission bi xaabaabal ngeen ñu ngi wàcc mm-hmm. suñu kàddu foofu jërë ngeen jëf jërëjëf sëñ xam naa rek damay joxaat kàddu gi Euh, tàmbale ko ci président ba ñu nekk ci ligne bi yëpp ñu tàggoo rek ndax fi ne nii moom daanaka romb nañu euh, euh, ñu ngi dugg ci trent minutes ci li ñu xaabaabal. ndax dëgg yëpp ñu wax dëgg fa yàlla ndax émission bi. doyul doyul xam ni yëguñu sax temps bi ni mu jàllee wax dëgg fa yàlla. Mhm. gaa kon dama leen di joxaat kàddu bi rek ngeen tàggoo xam naa du ñàkk nag danañ danañ amaat jotaay bu gën a yaatu moo xam fii. mo xam ñun ñu fekk ci leen ndax ñun moom euh, euh, ni ma ko waxee rek euh, ñun moom matérielu communauté bi lañ moo xam mm-hmm. président moo xam man waxtu wala ñu soxlaa rek sunu disponibilité jox nañ leen sëñ Modou waaw kon ma jox ma jox kàddu gi secrétaire Serigne Jong ban ban tànk ban kàddu bu mujj ngay ngay ngay ngay ngay jël pour

li nga xam ne ñu ngi koy sàkku à chaque fois. salaamaaleykum euh, ñëwal ñëwal sëñ Jong ñëwal ñëwal. comme ni ko sëñ Fatou waxee di euh, di di dem ci nit ñi di liggéey à chaque fois te liggéey nekk ñun wala ñu koy joxe ci àll bi nañ nañ ko jël te jii ma développé suñu communauté waaye bokk ci table de décision yi ñu fexe ba am affaire xam naa ni sëñ Pape wax bu fekkee ne tungu nit dana yomb. secteur bi ma nekk man di secteur transport maa ngi woo sama bokk ma nekk secteur bi ma nekk di di secteur transport mm-hmm. bokk yëpp ñu xam ne lii nii lu intérêt benn nit mais dañoo bëgg dañoo bëgg képp koo xam ne yaa ngi ci secteur bii nii eh, jafe-jafe boo mën a am nga gis booloo bu sa gannaaw fexe ba loolu doo ci yëg dara lu yomb la nag ndax lii wala fi wax naan lu benn mën ñaar ko dàq loolu mooy li am nañu nangu ne mm-hmm. eh, secteur bi nekk secteur bu délicat la xëy na ki amul jafe-jafe xamu lu bare bare waaye walaal asini par expérience jafe-jafe boo ci am lu mu néew néew néew néew da nga soxla ku la jàppale eh, ndimbal nag da ca fekk loxo boobu kon ñoo ngi woo ñëpp ñu xam ne doonte sax yow da cee nekk pendant vingt ans cent ans te mosuñu leen cee defal dara sante ko yàlla waaye di contribuer rek ci dimbale doomu aadama defe naa ne ku nekk war nga mën a war ndax la ca nekk ci ay yiw ak i tiyaaba yoo xam ne kenn xamul fu mu yem kon ñoo ngi ci oo ñëpp te ñëpp dugal ñu booloo ànd fexe ba ñun wax ñun or maa ne génération bu mën a ñëwati secteur bii moom doo ci fekk benn jafe ci da nga da nga ñëw fekk mu nooy ne pourquoi pas dem ba euh, dans l'avenir euh, euh, am ay secteur transport yoo xam ne ñun ñoo ko moomal suñu bopp nga xam ne bu nit ñëwatee dana mën a dugg ci biir secteur bi nekk ci ay bokkam te du am benn jafe-jafe loolu lu mën a nekk la waaye day fekk ñun ñëpp ñu boole suñu doole am nekk benn su ko defee kon ñoo ngi oo ñëpp di rafetluwaat baat émission bi di leen bu baax sëñ Pape ak yéen ñi nga émission bi yëpp ak bokkal yëpp di jaajëf ñi nga doon déglu di jéggalu tey tuub bu fekkee ne am na benn kàddu boo xam ne wax nañ ko te ja te jaaduwul ñu ngi koy tuubal ñëpp foofu la ñu wàcce seen asalaamaaleykum wa rahmatulah jërë ngeen. asalaamaaleykum wa rahmatulah asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu. waaleykum salaam. kooku. Euh, xanaa bëgg Fall bu ndaw. Eh, jërëjëf ñu ngi ziar de. sëñ Pam. bul mu mag rek. bisimilah. waaw yéen may mu ndaw mi loolu la loolu moo tax ma bëgg sax ndaw. waaw dëgg la. dëgg la maa ngi maa ngi teewlu waaw jërëjëf xam naa ba tey damay dugal tout. waaw wax nga dëgg waaw. maa ngi xam naa damay jàll suñu bokk taal ci biir suñu doole ñooy rek ne san bàyyiwuma kenn. Mhm. di sant ñëpp rek di gërëm ñëpp di mooñ mbay bu baax a baax a a baax ak yéen tamit émission bi ni ni ko jàppee ak ngeen ko maanaam organisé am solo trop mhm. xam naa ñëwaat ci liggéey bi xam ne moom noonu yàlla boole te mën ko seedoo rek di sant ñëpp nag ba ci suuf daanaka booy lim comme xam naa xat moom dama ñëw rek xam ni am na beneen cas boo xam ne mu ci biir xam ne ñu koy ñu koy doxal mooy coordinateur yi. danoo hmm. samp benn kuréel boo xam ne ñooy coordonné liggéey bi hmm. dañoo def maanaam gox bu nekk ñu am ñu fa am. fi ne nii hmm. foofu boo seetlu nii lañ ko tasaara ba décentralisé ko ba fi mu kenn ku nekk rek gox boo nekkee am na fa am na dañu fa jël ñu ma ñett mbaa ñeent ñoo fa nekkal xam naa xëy sax ak benn waaye kon dañuy lim ñëpp bopp benn kenn par ba ñëpp xam ni kon liggéey bi nekkul kenn waxal waa Mbadiane mbooloo ko seex kenn ku nekk loo ci yor fekk maanaam même France ge na ci nekk ñoo ko moom xam naa damaa yéex a ñëw sax moom ndax euh, ci pandaw ji waaye dama koy yemal fa wax naa benn yoon ndax li wétti wër mooy li fi xaj moom euh, maanaam moom daanaka yaatu na lool ndax waaye li mu lépp mu xaj ci bi émission kon daal si si baddama kon yemale fa xam daal foofu toll fii ni mu nekk li waxoon gaa yi daal jaaxle ak tuumaranke moom jeex loolu wér ndax hmm. foofu toll rek am na ñu ñooy ñooy dafa nekk gaaru ci ba foofu ca ca gox booba loo fa manqué ak loo fa bëgg ba dox laa jox la ko donc hmm. sar fa te jégalu te sant mag ñi ci biir ñëpp ndax ñoo jàpp ndax ci fii jërë nga jëf na la maanaa salaamaaleykum wa rahmatulah waaw sëñ Modou président yaa a Mm, waaw sëñ sëñ Serigne Seye baax na bisimilah la rafetal. <laughs> waaw mu nga waa léegi ñun ñu ngi wax dëgg yàlla rafetlu émission bi bu baax a baax a baax rafetlu di leen ziar di leen sant di leen gërëm ci invitation bi. Mm-hmm. di teg samay kàddu rek foofu ko sëñ bëgg fàllu teg ak Serigne Jong di lancé appel suñu collègue chauffeur yëpp ñu ñëw te xam ni groupe bi njariñ kese la. Mmh. njariñ kese la ndax euh, li tax mu nekk njariñ kese yow nga dugg sa camion jël sa téléphone teg ne dugg ci groupe bi dèjà di daw xam tali bi nga nekk am na embouteillage kilomètre nangam nga mën a def déviation nangam loolu passé na njariñ mmh. di déglu am problème fi ngay liggéeyee bëgg faa jóge di gis ku jógal euh, province bi nga nekk ne am na ko soxla chauffeur te kooku mën ngi am toutes les informations ba xam ni kooku ku baax la ku liggéey bu baax la loolu mm-hmm. ëpp naa bañ a bokk mm-hmm. am ay jafe-jafe ci comprendre ñaata heure nga war a daw wala ci semaine bi ci journée bi ñi tontu la ci saa si loolu ëpp naa bañ a bokk mm-hmm. tey tamit ma dolli ci rek leen loo nga xamante ni sama benn xarit bu baax da ko doon wax mooy amal am am njariñ ci sa bopp kese loolu yomb na ndax jur gi sax suñu borom a ngi leen sànn ci àll bi ñu ngi lijjanti seen bopp mm-hmm. nit da nga jëm communauté bi nga bokk mm-hmm. nga amal leen njariñ mm-hmm. donc loolu nag dina tax ba di regrouper regrouper wu comme ni ñu def di dimbalante suñu biir dimbal bu dimbal bi yegg si yow sax mais di dem ci sa mbokk jullit bu am ay jafe-jafe nga di ko dimbali loolu rek ëpp naa bañ a bokk kon ñoo ngi bañ a guddal daal di wàcc foofu kàddu yi di remercier ñëpp. di leen jaajëfal jërëjëf Seye. baalu ñëpp àq nag kàddu yi moom moom mënewuñu wax. xam ngeen ko waaye. jërëjëf <laughs> mu nga xam ne loolu yoo xam bu ñu la ko joxee faaw ngay ubbi sa gémmiñ léeg-léeg di wax kon ñoo ngi baalu ñëpp. àq lépp lu ci dëng rek. di leen jaajëfal. macha allah macha allah. jërëjëf waaw suñ xam naa di leen sant rek xanaa gaaru Thier moom bi ngeen invité di ngeen. moom ñi ngi taxaw ci parking yi di bëgg a dugg ci émission bi moom bari na lool macha allah <laughs> ñi bëggoon a dugg moom gaaru Thier moom beneen yoon bu ñu leen di invité moom da ngeen di yokk heure bi Modou Mbaye Thiam waaw da ngeen di yokk heure bi bu baax a baax di sant ñëpp rek eh, di jiital ci sant bi nag ñi nga xam ne ñoo jàpp ci liggéeyu gaaru Thier bi nga xam ne saa su nekk ñoo nekk ci programme bi su ci jiitalee suñ kilifa yi nga xam ne ñoo jiite liggéey bi ak ñi nga xam ne wàllu programme bi ak eh, discipline Euh, adjoint secretaire général bi di jàmbaar lool ci liggéey bi moom itam nga xam ne guddeeg bëccëg ñoo nekk ci panel bi di ko animé di ko organiser ak ñi nga xam ne ñoo ñoom la àndal liggéey bi ak suñu kilifa yëpp ku mel ni sëñ Amdi Sàmb sëñ Daam Bey ñoom ñëpp rek ñi nga xam ne ñu ci panel bi ci jàpp ci liggéey bi comme li euh, sama jëwri ñi wax rek ñu gën a euh, tàllal loxo suñu mbokki sénégalais yi mbokki chauffeurs xam ne ñun pas-pas bii nga xam ne dañ ko amee lii ñu woote Mhm. dañoo jàpp ne eh, dañ cee wara a yàlla pour jariñ suñu askan ndax lii ñu teg dañoo jàpp ne njariñ ñi sax ñun bu dee am wala yàlla nañ ko fekkee waaye buñ ci am dara ndax nit ki eh, boo jógee dem di bokk ci mbir la ngay war a am pas-pas bi mooy pas-pasu jaamu yàlla pour def ci pour jariñ doomu aadama mhm. ndax kenn ku nekk ci ñun mën nga nekk fa nga nekk rek sa mbir di dox nga bañ a faale kenn nekk ca la nga nekk waaye loolu du ngóora comme ni ko sëñ say waxe sànq lii ngóora mu nga fexe loo xamante ni wala nga bokk ca ba bu ëllëgee li yàlla wax ni nit ki moom du def lu muy lum dul fay gi doon ceek da nga dem ëllëg barsax yàlla na yéex itam mu la fay fekk hmm. mais nit ki bu dee da ngaa jàpp ne bu sa mbir dee dox rek loo gis mu taxaw rek eh, yow daanaka ña koy def jëmuñu fenn loola ëpp naa def na am pas-pasu bokk ci dëgg la nag na sénégalais yi luñ fi sos mu tas waaye lii ñi ko sos dañu dañoo mën ne ab ay victime lañ ci système bi fi nekkoon mooy sénégalais yi loolu ñu organiser du dem loolu la ñu ko gëm la ñu ñëpp ba jàpp nañ ne mënul suñoo def dara te loolu nag dañ ko war a weddi war nañoo mën a def dara war nañoo gëm suñu bopp ndax tey li hmm. may dem ci tubaab mën a ñëw ci office Pape Demba la ma tubaab di defal mu defal ma ko ko dem am na fa hmm. bu ñu suñu bopp rek te ñooñu tamit ñu ñuy woote ñu wóolu ñu def loo xamante ni nit ñi dañ am kóolute ci li ñuy def jàpp hmm. naa ne dina dem mbir mi comme niñ ko tëggee structuré ko nga xam ne ci domaine yëpp tey président beeg amul kenn koo xamante ni gaaru ceer bi ku ñëw di la jox xaalis liquide amoo dool droit ko bu dee carte de membre la serveur bu nekk mën nga am nga banque am nga euh, compte corrent mën nga defal bonifico yónnee reçu bi ñu daggal la sa carte de membre nga nga def nga nga bokk ci képp ku ci hmm. bëgg a bokk itam il faut rek nga joxe say document parce que li ñu la mën a xam xàmmee mooy permis de conduire ak euh, carte qualification ci ci ñu mën a xam ne yow mi chauffeur nga hmm. lu dul loolu mënoo cee bokk donc loolu daal la ñuy gën a ñaax mbokk yi di tàllal loxo ñëpp rek képp koo xamante ni yaa ngi ñuy dégg wala nga bëgg cee bokk moom gaaru ceer bi moom tëjalu bi buntam kenn ñëpp a ngi ci ndax gaaru Touba gaaru ceer Touba Italie tur wi boo gisee ñu tuddee ko AAPSE mën ñoo def ci document yi ne gaaru ceer Touba Italie ndax tur woowu moo njëkk waaye pour yaatal ko xam ne lii amul frontière ci fenn te ñun ñëpp ñoo ko bokk moo tax euh, bi ñuy def ñu ñu tuddee ko ñu tuddee ko lool maanaam euh, gaaru APSE amul benn amul tarixa amul euh, couleur amul religion amul lenn ku dif sénégalais te bokk métier mi nga ngay doomu aadama rek ci nga bokk mm-hmm. donc loolu itam ñëpp xam ko euh, murit yaa ngi ci tiijaan yaa ngi ci laayeen yaa ngi ci ñëpp ngi ci du du du lu kenn moom du ñëpp bokk la kon ñu ngi ci woo ñëpp di tàllal loxo ñëpp di leen sant di leen gërëm di leen jégalu bu baax nag euh, ci kaddu yi ak auditeurs yi nga xam ne ñoo ñu déglu ñun ñu wax dëgg yàlla daf ñoo fekk ci yoon dañoo gaare nii sax ne nañu participer ci émission bi door a départ waaye xam nañ ne niñ ko war a teewloo sax teewluñu ko ñu ngi leen di jégalu bu baax a kàddu bu ñu fi yëkkati bu euh, demewul na mu war a demee ñu koy tuubal di ziare waa rajo bi yëpp nag nga xam ne suñu rajo la dañ cee bokk wax dëgg yàlla tey ñu suñu yëfi bopp yoo xam ne tamit ñu ngi ci woo auditeurs yëpp di ci ziare ko mel ni Dame Gaye suñu Babacar bi tey ak auditeurs yi nga xam ne ñu ngi dégg yëpp te itam ñu bokkaat fi wenn waar woo xamante ni dañ koy liggéey Sëriñ Tuubaa ci rajo bi muy li koy doxal ndax hmm. lii rek la euh, euh, naka jekk nii rek lay taxawee sénégalais yi muy euh, sénégalais yi nga xam ne ñu ngi ci Italie wala ñu ngi ci diaspora bi ci lépp ñu soxla ci loo xamante ni ci communication ñu leen di ziar di leen balax di leen balax di leen jëf jërëjëf jërëjëf sëñ Modou sëñ Pape waaw sëñ Pape émission bi moom tey dafa ala daw bi moom wax dëgg yàlla déggoo ma ne leen ma ne ma ne chauffeur si moom daañu dellu si waat bu soobee yàlla moom. waaw wut nag ab chauffeur ñu tam man ak yow. ah. <laughs> da ngeen dem auto école rek da ngeen dem auto école rek wut. Euh, dañuy dem auto école man moom xaw ma école xaw waaye dinaa wut carte chauffeur. <laughs> mais sant yàlla sant yàlla ñu ngi ñu ngi sant bu baax euh, président sëñ Diouf. Euh, di siyaar secrétaire général sëñ Diong sëñ Sey trésorier. seigne seigne khas ak euh, bëgg fallu ñoom ñëpp ñu ngi leen di ziar vraiment ci oyof gi ak disponibilité bi nga xamanteni jox nañ ñu ko euh mëna waxtaan ak ñoom bu ko défé gindi gindiwaat tuuti suñu bokk mbokk ci euh ñu ma ci profito rek di nuyu suñu chauffeur ci nga xamanteni ni ñoo ngi fi Parma euh di ci lim ñaar ba ñett rek seigne Abdou Diop ak alaykum Adim bi ak euh, seigne Jili Mang ngi leen di nuyu di leen jaar sànq rek maa ngi leen di wax ne leen émission bi dina am incha allah di wax ni émission bi nga xam ni kenn ci liggéey bi xam naa ngeen ko mënee dugg rek ci minute rek ma ziare Mor waaw nañ ci Mor maaleykum salaam salaam waaw Mor di àddoo fii di di nuyu di leen nuyu bu baax sëñ Pape ñu ngi lay nuyu di nuyu président Serigne Jonga Serigne Seye Nkaat Diop. di wax ne gaar sadu cër bi daal moom tawféexi suñu borom la ñu ngi ci soññ suñu mbokk yëpp yoo mbokk dañoo fàtte woon ne am nañ ci it ci biir gaar sadu cër bi daara joo xam ne simin bu nekk danañ wàcc ñetti kaamil ñaanale ko Sénégalais yi nga xam ne ñoo nekk fii ñaanal ci suñu mbokk yi jullit yi maanaam gaar sadu cër bi daal mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi yëngu ci yu baree bari yooyu jëriñ sa yooyu jëriñ Sénégal yi kon nag ñu ngi tàllal mën a jàpp hmm. awaate na ko mel ne sëñ Pape nga xam ne yàgg nañoo dem sa émission rajo bi it sunu rajo la depuis ba fi sëriñ naar nga nekkee laa ci daan dugg moom sama xarit la woon ñu ngi koy ñaanal jàmm di leen tàllal loxo daal yéen lépp ngeen ci mën a jàpp ngeen jàppale na ko ci rek xam ne doomu aadama moom xamul lépp mënul lépp sa rawaate na ko mel ne sëñ Pape ni ngay jàppale yeneen côté yi ñeneen ñami jafe-jafe yëpp daal ñi ngay taalal loxo nga waxtaan ak sëriñ Jong ak ba ba ba mën a jàpp ci liggéey bi daal tam émission baa ngi jeex na ñu ngi jégalu bu baax di gàttal di nuyu ñëpp rek wasalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf jërëjëf jërëjëf kontaan nañu lool kontaan nañu lool ci contribution bi ñuy nuyu it suñu mag ñi nga xamante ni wax dëgg yàlla ñoo xàll yoon wi ba tey jii eh, ñoom sëñ Diouf ñoom sëñ Jong ñëpp mën a ñeme ba mën a ñoom it mën a liggéeyal génération yi nga xamante ni ñoo ngi ñoo ngi ñëw ëllëg di wax ni euh, di ngeen dégg lu nekk lu nekk di ngeen ko dégg di ngeen dégg ñi ñi nga xamante ni euh, amuñu vision amuñu gëm-gëm daañu wax ni du dem du dem ndax ñun ñi waxal nañ ko CADES bi muy formé wu daanaka dox nañu ñetti at yoo xamante ni ñu ngi dox di wax di dox di wax di voyager di dem di ñëw ci suñu poos ba léegi ci suñu poos la ñuy voyager Euh, waaye am na ñoo xam ni ñoo démarré ndoo woon te gëmuñu ko woon te tey jii wax dëgg yàlla bi ñu demee ba taxaw formalisé wu euh, dugg fu nekk dem ci autorités yi taxaw ña ña yaakaaroon ni sax duñu dem gis nañ ni vraiment am na loo xamante ni soppeeku na ci dëkk bi te it suñu njaboot gi ñu fi yore am na lu ñu leen bëgg a tegal ëllëg loo xamante ni dañ ko war a hérité woo donc solidarité boobu man dama koy rafetlu te ñun en tant que membre CADES lépp lu ñu mën a def pour que mën a yokk seen nekkin mën leen a jàppale ci orienté ak informé incha allahu rabbi daañu ko def euh, fu ngeen ñu woo it danañ fa ñëw fekk leen fa jàpp ci liggéey bi ci anam bi nga xamante ni moom lañ ci mën a jàppee te it jox nañ leen suñu bopp euh, di wax ni euh, du ñàkk it am ngeen ay vision yu Sénégal xóotaluñu ko waaye daañu fi di lu siwaat aussi ci beneen émission incha allah ndax ku ne gis na ni Euh, système routier bi nekk Sénégal dafa dafa souffrant dafa souffrant parce que ay jàmbur ak ay immigré ñoom ñuy ñëw di utiliser sunu ay route di jóge dëkk dëkk du ñu nelaw et puis c'est pas tellement réglementé donc yéen déjà euh, wa autorités yi sax war nañu war nañu mën leen a gestu pour que ñu am beneen beneen idée boo xamante ni am nañ ko par rapport ak lii ngeen di def nii te bu soobee yàlla ñun orientation buñ ci am daañ ci waxtaan ak yéen en tant que CADES. Euh, bu ko defee loolu it ñu jublu ci mën cee mën cee am benn benn taxawaay ci kàttanu yàlla parce que loolu mooy suñu rôle en fait may gërëm di sant sëñ Pape tey moom xaabaabal nañu dañuy jéggalu bu baax sëñ Modou Mbaye ndax bis bi moo ko laaj ndax borom bis yi liggéey bu noobul lii rek mooy métier euh, am na yeneen métier waaye métier bi dafa métier bu noobul ñoo xam dañuy bàyyi seen i seen i njaboot nekk ci àll bi di taxaw euh, am ay contraintes lu ne mën leen a fekk ci yoon bi risques yi bari Euh, donc vraiment ñu koy def ngir njaboot di daw ngir njaboot ñooñu vraiment lii ñuy def nii euh, jaam yàlla la ndax liggéey dafa bokk ci jaa xeeti jaam yàlla yi dañuy ñaan yàlla yàlla mi nga xamante ni moom magasin la yore te dara tuwu ko euh, mu sàmm leen sàmm leen te lii fii ngeen teg seen loxo yit yàlla suñu boroom teg ci loxoom ba li ngeen ci utu yàlla defal leen ci lu kawe seen jor sëñ Pape xam naa damay gàttal rek di jégalu bu baax ci guddal bi Euh, di jox ndax daje euh, beneen dimanche incha allah mbokk taalibe yi ñu ngi leen di siyaar yéen jër jërëjën jëf macha allah sëñ Pape Makhtar euh, defe naa ni tey moom luñ ci teg moom amul lenn lu ñuy wax xanaa rek ala na vraiment tey émission bi moom ala Mauritanie ndax wax dëgg fa yàlla wàllu message li ma ci jot tey bi ma commencé def émission ba léegi mosuma ko jot ay nit yu may bind personnellement yu bokkul ak ñu bind ci wàllu Euh, messagerie bi euh, mbokk yi nga xam ne ñu ngi teewlu lu ra lu weesu ñi nga xam ni daanaka moom saa ne du ñu euh, bàyyi benn yoon soxna May Jóob ndeysaan sëñ Cerno Jeng sëñ Moustapha Lay sëñ Matar Bey sëñ Baara Jóob Bala May sa Cam Cheikh Bamba Jóob moom jóobee ni daal ñoom ma jaaxal sama sëriñ sama sang sëriñ Pam Njegéen Fàllu Géy Baaba Babacar Diouf sëñ Ibrahima Thiam moom vraiment joxe na ci contribution sax sëñ Mbay Mbeng bu Livorno soxna May Jeng bi jëwriñ ci daayira soxna jaaro yu Italie euh, soxna Seli Kan bi sunu sunu moom it ndeysaan soxna May mun a ñing euh, euh, sëñ sëñ sëñ Cerno Jeng sëñ Pape Ndiaye Ibra Sall Cheikh mbake Jaxumpa sëñ Ablaye Dia maanaam daal ak ak mbokk mi nga xam ni wax dëgg fa yàlla mi ngi woote ba ba ba ba France sëñ Basiru Fall euh, euh, euh, mu mel suñu jëriñ dugg na de mënuñoo bañ a bañ a bañ a dellowaat jëriñ salaamaaleykum salaamaaleykum ci bi

vraiment mënuñu lu dul sant leen ci seen taxawaay di leen xamal ni aussi euh, lii ngeen def nii fierté la pour ñun euh, euh, ba ba lépp lu ci war ci wàllu matuwaay ñun fa ñu féetee bu soobee yàlla bu bu bu yeexee ci seen wàll la waaye du suñu wàll da leen ko pap waxee suñu président kon ñi leen di xaar te it leen déglu ci fañ leen a mën a jàppale di sant nag tey jéggalu suñu technicien Modou Mbaye Thiam ndax liggéey bi metti na waaye nag léeg-léeg lii moo lay jox satisfaction parce que euh, ngay gis ni mbooloo mi askan bi nga koy defal ñu ngi yëg ni euh, euh, yow vraiment la nga war a def def nga ko vraiment du ñu mën lu dul delloowaat ko njukkal te sant ko bu baax di ziar mbooleem auditeur boo xam ne rek dugg nga ci émission bi ndax it mm-hmm. li li li li li li ci nag bi yëpp xajul ci cin li des koy Eh, eh, eh, lépp rek xam naa du ñàkk danañ jëlaat beneen jour boo xam ne dañ leen di jëmal jëlal benn thème spécial thème spécifique la ñu ñu mën ko ñu mën cee waxtaan euh, euh, di sant mbokk yëpp dafa mel ni dafa am ku dugaat de waaw salaamaaleykum maaleykum salaam mbokk bi kan la maa ngi woon la Basiru Fall di woote fii ci Compiègne France bo bokk ci garu Ceerno Tuubaa Italie ah di jaajëfal suñu président yi dugg di leen jaajëfal yéen ci dalal bi ñu dalal tey di ci am mbégte lool gën a tee am mbégte ci yéen sax mm-hmm. ndax jàkka jekk dañuy am mbégte ci yéen waaye gën a tee am ci yéen mm-hmm. di wax ni gare bi daal maanaam suñu président yi ko jiite mm-hmm. luñ ci wax sax bàyyi na ci def jàmbaar lañ jàmbaargul maanaam ni ñu ko organisé sax lépp sax expliqué wuñ ko ci biir noonu ndax xëy émission bi organisé mhm. bi ñu ko organisé maanaam lépp li ngeen wax nii rek. mu mhm. ngi ci biir programme programme nañ ko. ci ni ñu mhm. ko tëralee ci kii bi. di leen xamal ne maanaam gare routière daa leen ni dañ ko tuddee association waaye sax lu association association daara boole ndax waxuma la maanaam xam-xam borom ustaas yi nekk ci biir di jàngale mbirum diine yi suñ kilifa yi nekk ci biir yore mbirum alxuraan yi. fi mu toll ba léegi ñoom ñu ngi ci ñetti kaamil di ko ci wàcce chaque semaine. Mm-hmm. ak ñaan yi ñaan ci loolu sax xam naa ñoom président yooyu nañ ma jéggal tudd ko ma tuddu ko waaye moom maanaam dama leen di xamal daal daara la te maanaam nekk moom euh, lu ñu leen ci sax bàyyi nañ ci des maanaam daal sénégalais waxee nekk ci Europe mm-hmm. war nga cee dugg ndax waaye ñaan yi ñu ciy ñaanal ak maanaam le mi ñu ciy njàngale si mbirum diine rek mm-hmm. doo ko egsi nag ci mbirum métier mi nu na fay di ko wuti wax ne da nga doon fay ustaas la koy waxal ci biir te mm-hmm. di boole ko fi siinub liggéey yow sa bopp di la ko jàngal boole ci te laaj ñu la benn dërëm mm-hmm. jar na la ko wallaahi mm-hmm. la asim jar na ko moom la ñu ngeen di jaar bu baax di leen ñaan baax nag maanaam yor na rajo bi yor na yokk ba fépp am doon ay télé ci barke suñu fàllu mbàkk barke barke maam Cheikh Sadiane jërëjëf jërëjëf sëñ Bass Fall foofu moo doon auditeur mujj bi nga xam ne tey jii moom lañ doon jël ci émission diaspora di doon dalal suñu mbokk yi nga xam ni ñoo di AAPS waaw di gaaru ceer Touba gaaru ceer Touba euh, euh, président bi di sëñ Modou Diouf Mbassa euh, sëriñ Jong di secrétaire général bi ñu ziar ñoom bëgg fàlloo bokk yi nga xam ni tey jii ñoom ànd nañoo ko ñëpp rek ci émission bi di leen sant di leen gërëm di di di nag ci bépp kàddu rek boo xam ni rëcc rëcc la di leen xamal ni doomu aadama moom matul waaye lépp lu ci baax rek ñu xam ne suñu borom moo ñu dimbali rek Euh, di sant ñëpp di ziar nag suñu jëwriñ sëñ Ibrahima Ndiaye ak sëñ Mouhamadane gis naa mu jéem a dugg waaye eh, xam naa ni ligne bi moo entagé wu ndax tey jii buxante bi métti na ndax ay camionnistes moom fu ñu rang moom jàll fa dina métti waaye rek oto bu ndaw dana jafe lool euh, benn mbokk ndeysaan sëñ Ablaye Dia mi ngi am lool yëg-yëg di wax ni ndax ku bokkul ci ku amul ku day doon chauffeur mun a bokk ci association boobu boo koy xamal rek ni ko association boobu moom chauffeur yi rek ci bokk Euh, ñoom ñoom ñoom bañ nañ ko ba dañuy laaj sax carte carte chauffeur bi maanaam patente rek yooyu euh, yooyu mooy condition yi nga xam ne moom ngay mën a bokkee waaye euh, lu ci mënti am rek defe naa ni spunto la pour yeneen kuréel yi war cee mën a xool ñoom it am taxawaay buñ ci am ndax jot na ni ko ni ko sunu mag Baye Diouf joxe ñu jëlal sunu bopp sunu sunu sunu ay mbir ndax jóg di délégué ay nit ñuy dund suñu kaw boo xoolee jamono yi daanaka façon bu nekk am na avocat wu immigré euh, commercialiste immigré maanaam euh, euh, dem nañ sax ba nga xam ni classe sociale yëpp daanaka dañu am ñoo xam ni ñun rek la ñu dundee jot na nag ñu jóg ñun am suñuy fule bopp ba nga xam ni suñuy mbir ñu jóg taxawal ko suñu bopp téel ko suñu bopp ndax it nag foo dem ba def fa ñaar fukki at boo bëggee saa su ne looy bëgg a def di woo ku la ko defal léegi ci yàq fula lay bokk kon mbokk yi loolu moo doon ji diaspora donc di ñëpp nag euh, di di di di di ñëpp leen baal àq di di di di di ziar euh, euh, mbokk yi nga xam ni bëggoon nañu dugg mënuñoo dugg ak mbokk yi nga xam ni saa su ne dañuy dañuy bàyyi xel leen jox dox doje dimanche ak jàmm wasalaamu aleykum wa rahmatullah wa barakaatu cheikh ahmadou bamba dafa wax ne fa laysa yujibu sawaadul jismi cheikh ahmadou bamba dafa wax waqal bokaala aadati amwaati